أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم mbokk yi tey ñu ngi dikk ak yéen ba tey ci suñ jataayi xam-xam yi nga xam ne dañ koy jàngalante ak yéen tey nag ñu dikk ci ponk bi nga xam ne mooy juróomeelu ponk bi ci ponk lislaam yi muy aj muy dem màkka ci néegub yàlla boobee def fa la nga xam ne moom la fa sun borom subhaanahu wa taala digli ci ak jaamu te defe ko na nga xam ne moom moo dëppoog ni ko yonenteem bu tedd ba alayhi salaatu wasalaam jàngalee loolu ci lañu dikk tey ngir def ci ak yéen ay bind bala ñuy dugg ci loolu nag ñu def ay genniku ci biir loolu nga xam ne moom mooy aj ndax yonent bi sunu boroom subhaanahu wa taala dafa digle julli kenn ku ne mënoon koo defee ci biir néegam wala mu defe ko ci biir këram waaye nag ñu taamu ci moom bu ci amul benn ngànt mu koy defe ci jàkk te loolu dafa am xikma bu ci nekk ndax suñu boroom dafa namm jullit ñi ànd nekk benn innamal muminuuna ixwa jooju mu wax dafa bëgg mbokk googu ñu dund ko fa aslihu bayna axawikum te rafetal gi seen diggante ak dundin wi rafet jëflante ci lay mën a amee te jëflante ànd nekk benn moom moo koy mooy tax mu mën a am moo tax suñ boroom subhaanahu wa taala noonu mu diglee julli muy farata kenn ku ne mënoon koo defee biir néegam wala biir këram waaye ñu taamu mu génn dem ba ci jàkka ja daje fa ak ay nawleem ay mbokki jullitam defe ko foofu loolu dafa dama wax ne dafa am xikma te mooy ñu man di xamlante ci suñ biir kenn ku ne situation bu mu toll moroomam man koo xam ndax su fekkee waxtu wu jot ñu daje ci jàkka ji li ñu umbulante mën naa bañ a bari su fekkee bu fajaree ñu daje ci jàkka ji kenn ku ne dana xam lu moroomam fanaane su tisbaaree ñu daje ci jàkka ji kenn ku ne dana xam moroomam lu mu yendoo ak takkusaan ji ak timis ji ba ci sax waxtu gee woowu kon génn gi ñuy génn dem ci jàkka yi di fi jullee dafay jàppandal ak bennoo ak kumpa mën a dañ ci suñ diggante ba kenn ku ne lu moroomam nekk mu mën koo xam ba lu ca aajo dimbali mu mën caa taxaw taxawaay ya nga xam ne moo ko war ci diggante jullit am mbokkum jullitam waaye suñ borom subhaanahu wa taala yëmul ci loolu mu indi ajjuma salaatul jumaa di julli koo xam ne moom itam dañ koy defee ci jumaa te loolu moom itam xekk ma def cee nekk ndax jumaa ji dañuy boole nu raw ni ñu jàkk ji doon boolee ndax jàkk ji moom waa koñ bi rek ñoom ñoo fay daje waaye nag jumaa ji nag waa dëkk bépp mën nañ faa daje su fekkee day dëkk bu mag boo xam ne jullikaayu jumaa yu bare am na fa mel ne Tuubaa gi du tee mbooloo ma fay daje ci jumaa ju ci nekk mooy ëpp fuuf mbooloo ya nga xam ne ñoo fay daje ci waxtu julli juróom yi kon jullik ajjuma dafay gën a te day gën a tee boole dëkk bi ba li ëpp ci waa dëkk bi rek mën a daje su ko defee kon nit ki nga xam ne jegewu leen lool gis ko bis bu nekk du la yomb tam ay bis bu nekk rek da nga gise ak moom moom itam nga mën a xam ci yan tolluwaay la nekk lu ko fi gaar ci ayu bis bi nga mën koo xam su àjjuma jotee te gisoo ko tàng ko daan gis loolu sabab nga jël sa temps ngir nemmi ko ko ba xam ndax jàmm moo ko téye wala déet kon àjjuma moom dafay boole dëkk bi suñ boroom subhaanahu wa taala yëmul ci loolu waaye mu indi lu mel ne kori ak tabaski moom it muy julli goo xam ne dafay gën a tee boole dëkk bi nu raw ni ko ajuma doon boolee ndax moom jigéen ñi sax dañu mën a julli si bu sart yan bëgg ci ñoom matee sunna lay doon ci ñoom ñu julli si maanaam dañu sopp ñu julli si kenn du leen ko tere bu fekkee sart ya mat na góor ñi ak jigéen ñi mag ñi ak ndaw ñi ñëpp rek dañuy gën di daje ci lu mel ne koré ak tabaski ndax dafay bis boo xam ne dafa làmboo feet goo xam ne lislaam moo ñu ko jox ñu war cee bëgg feeñal suñu mbëgte ñun ñëpp baalante ca yàq kon gis nga ne koré ak tabaski moom itam daje gi xekk ma mi ngi ci ndax moom it dafay gën a téye boole dëkk bi boole yin wu raw yu ko julli ci jàkka doon boole lu raw itam ni ko ajjuma doon boole. waaye suñ borom subhanahu wa taala yemul ci loolu indi ponk bi ñuy bëgg a waxtaane muy aj nga xam ne moom réew yépp fépp fi ab jullit mën a nekk rek ñoom ñépp lay jël dajale leen ci benn réew ci benn dëkk ci jenn jëf nga xam ne kon àdduna bi mboolem ci nekk te gëm yàlla rek aj daf leen di boole waxtu wu nekk gis nañ ne ay relation yu bari ñoom moo ci juddoo ci ñoo xam ne sax réew bokku leen ko kon aj dafay boole jullit yépp ak fu ab jullit mën a nekk ci àddina loolu lépp rek di gën di jur ak bennoo kon ay xikma dafa nekk ci julli ci jàkka ak julli ajjuma ak julli lu mel ne koré ak tabaski ak lu mel ne ponk bii ñuy bëgg a waxtaane ci nan lañ koy defee muy aj màkk kon yooyu am solo la yu ci nekk yoo xam ne yu ci mat di genn ko la lu ci mat di bàyyi xel la ba képp ku yàlla man loo rek mu def ko te rafetal defin wa dafa nekk nag farata ci jullit bi ba sart yi dajee ci moom ndax suñ boroom subhaanahu wa taala moo wax ne walillahi ala nnaasi xajjul bayti man istataa ilayhi sabila waaye wa man kafara kon it fa inna allaha ganiyun an il aalamin suñ boroom subhaanahu wa taala dafa wax ne war na ci nit ñi lu leen war a ci seen digganteeg seen boroom muy ñu dem aj néegam boobu te def ko muy ak jaamu nga xam ne ndigal la lu suñ boroom subhaanahu wa taala digle mu war jaam ñi ci seen boroom bi leen bind te sant leen ko nga xam ne kenn ku sart yi daje ci yow rek dañu bëgg nga bañ koo yeexe dem def ko mu wax ne képp ku du muyu suñ boroom subhaanahu wa taala ñàkk a def loolu it du tax mu wàññi dara suñ boroom ndax yàlla moom ganiyun anil aalamin la doylu na walis mbindeef yépp kenn jëriñu ko dara ndax boo xoolee bi mu diggalee yonent yàlla ibrahima alayhi salaam ne ko wooteel nit ñi ngir ñu aj néeg bi bi mu ne ko wa asin fi nnaasi bil xajji yaatuuka rijaalan wa ala kulli daamirin yaatina min kulli fajjin amiq daf caa teg ne ko li yashhadu manafia lahum loolu nag dafay tegtale ne kon suñu njariñ rek ñun jaam ñi moo nekk ci loolu waaye du ñun ñoo cay jariñ yàlla dara moo tax yàlla ne wa man kafara kon it fa inna allaha moom ganiyun alamin ñàkk ko def du wàññi dara yàlla jaam bi rek lay jariñ ndax ñi ngi wax ne yonent yàlla aadama alayhi salaam sax bi mu ko njëkkee tabax bi mu noppee dana yaa rabbi inna li kulli amalin ajra kon fa ma ajru amali jëf ju nekk day am na ak pay ana lan nag mooy sama pay ci jëf ji nee nañ suñ boroom subhaanahu wa taala ne ko isa tufta bihi xafartu lakk zunubak kon de saa boo ko wëree rek ma jéggal la say bàkkaar mu ne ko zidini dolli ma suñ borom ne kon jaaltuko jaaltuhu xiblatan lakka wali awlaadik kon defal naa la ko muy sa xibla yaag sa njaboot su ngeen defati seenu jaamu di ci jëm nee nañ mu ne ko rab bi ba tey zidni dolli ma nee na suñ borom ne kon nag axfiru li kulli man istaxfarani min altaifina bihi min ahli tawxid min awlaadik kon nag danaa def naa ko muy béréb boo xam ne danaa jéggal képp koo xam ne taxaw na fa jéggaluma ci ña nga xam ne ñoo fay nekk di ko wër ci ñi nga xam ne ñu ma gëm lañ nee na aadama xolam door a sedd bu ne ko nekk xas bii waneen daal doy na sant na kon gis nga ne la fa nekk lépp ci li jaam bi def ay njariñ rekk la yu dellu ci moom waaye du yoo xam ne boroom subhaanahu wa taala la fay jëriñ ndax ñi ngi naan min adunubi zunuban laa yukaffiruha illa alwuquufa bi arafa nee na am na ci bàkkaar yi sax bàkkaar yoo xam ne dara du ko kafaara lu dul taxaw arafa kon noonu la amee solo te it noonu la war a itteele bépp jullit boo xam ne mën na ko dañu bëgg itam képp ku sart yi daje ci moom ba man ko mu bañ koo yeexe ndax yonent bi nee na taajjalu ila al xajj ndax fa inna axadakum laa yadri ma yu'radu lahu mu ne aj bu ngeen ko mënee gaawe leen ko ndax kenn ci yéen kër xamul lan moo ko mën a gaar ëllëg ba mu tëliwaat ko kon soo ko mënee bul ko yeexe ñuy bëgg itam saa boo jàppee ne man nga ko ndax danañ indi wax lan mooy man gi danañ indi wax gi lan mooy man gi waaye dañoo bëgg ba dañoo wax man gi wax maanaam charte yi daje ci nit ki ngir mu war ko ndax loola ci la man ngay feeñe ndax man gi daa bokk ci charte yi tax mu war ko ndax man istataa la wax ilayhi sabila kon aj kan la war dañ ne ay sart la am yoo xam ne dafay daje ci nit ki aj door ko war yooyu nag juróom la bi ci njëkk mooy ak ak njullit al islaam dañu bëgg nit ki nekk jullit ndax jaamu yàlla moom mbindee fi yàlla yépp la war waaye lislaam nag ay ndigalam bala la ko tàmbalee gàll da ngay ñëw ba adapté wu ci moom ba bokk wan ne ab jullit nga ñu door a jël nag teg tegi lislaam di ko gàll ci sa kaw kon da ngay nekk jullit d'abord njëkk ñu lay teg ndigal yi lislaam digle kon bi ci njëkk mooy nit ki na nekk jullit ndax ñi nga xam ne gëmuñu yàlla yàlla dafa ñoo digal néeg ba sax ñoom bu ñu ko jegeeti ndax moo wax ci alquran ne yaa ayuha alladina aamanu innama al mushrikuuna najisun kon falaa yaqrabu al masjid al harama baada aamihim hada bi baraatun wàccee la ko yonent bi jël wax sayidna ali mu jàng ko ñépp dégg ci at moomu wane ne yàlla wax na ne mushrikiin yi ñoom sobe lañ waratuñoo jege baytullahi alxaram bii kon lu passé at nii ñu nekk buñ fi jaarati fekk nag daanañ fi indi ay njariñ seenu dikk fa daana sabab ay njariñ zahir yu mën a xam ndax njaay meeg njënd mi daf ci daan dox lool waaye yàlla wax ne wa in xiftum ailatan fa sawfa yuxnikum allahu min fadlihi inchaa ndax inna allaha alimun xakim yàlla wane ne bu leen ci ragal dara li ma digle moom def leen ko rek nañ leen interdit ñoom ñëpp kaaba gi su ngeen ci ragalee ñàkk itam ngir njariñul zaahir liñ fi daan bàyyi yàlla moom mën na leen a jox lu gën loolu ci ngëneelam loolu dinaa fi dugg tuuti leeral ci wàllu njaay ak njënd donte sax waxtaan wi laaju ko mooy da nga gis ñoo xam ne dañuy jaay yoo xam ne lislaam bëgg ko waaye nag dox gum dox ci ñoom daa tax mënuñu koo bàyyi ñooñu aaya bi war na teew ci ñoom bañ mën koo bàyyi xam ne yàlla moom lim la tere soo ko bàyyee rek du tax nga ñàkk ndax dana la indil lu gën la nga ca doon am dana la indil lu gën la nga xam ne moom nga ca doon am kon loolu mat a bàyyi xel la kon loolu moo tax nekk ab jullit bokk ci sart yi tax nga mën a aji kon bi ci njëkk mooy na nekk ab jullit bi ci topp mooy alxurriyatu mooy na nekk gor ndax jaam dafay lu xewoon ci ay jamono nga xam ne ki ko doon dafay am ku ko moom moomeelug zahir fii ci àdduna di moomeel gu bokkut ak yàlla mi ko moom carrément tax na nag dafay occupé wu ci itte ki ko moom ba tax na dawul mën a dem di aj taxoon na loolu moom ñu teggil ko ki nga xam ne jaam la tey ab jullit li fépp mi ngi nekk jaam lislaam teggil na ko bokk na ci ay sartam ngir mu mën koo def mu nekk gor nga xam ne suñ nee wërta aji jibluñ ko ko tere ba bu fa doon dem ñu koy tere dañoo bëgg wax ne rek lislaam teggil na ko ko ba ba ba ba muy nekk gor saa bu nekkee gor nag mu daal di koy war bi ci topp moom mooy alaqlu nit ki na ànd ak xelam ndax mën na nekk mag mën a pitam xelam des kon kooku daanaka majnun la kooku lislaam loolu daf ko koy teggil ba ba muy àndaat ak xelam ndax daa bokk ci teg-tegi lislaam fekk la nga ànd ak sa xel sa xel saa ba tàqalikoo yow atey lislaam dafay teggiku ci yow ni ko xadis bi waxee kon nit ki na ànd ak xelam ngir mu mën a aj kon su nitee di ko rek moom itam ay sartam matagut mën naa jekki bi ci topp mooy albuluux mooy ak kàllafe maanaam na nekk mag xale sax mën naa aji nii te bu ko defee nam ko war a defe sax am ci yoolu aj waaye nag waragu ko nga xam ne kon du tee bu demee ba kàllafe daf koy war a defiwaat def gi nga xam ne nag mooy giñ ko sant nga xam ne mënta ñàkk kon kàllafe ci la bokk bi ci topp nag te mooy mooy bi gën a yaatu mooy ak man al istitaa mooy nga ak nga man ko ndax man gi dafay aju ci sa wér-gi-yaram ak ci sa dépense bi ngay fere ngir dem ak ci sa wàllu yoon wi kóoluteg yoon wi ci mu am sécurité ak yu mel noonu loolu mooy tax nga man ko kon juróom yooyu mooy daje ci nit ki nit ki aj door koo war war goo xam ne bëggatuñ sax mu yeexe ko ndax mën naa demaat ba tële ko te du ko jot a def man gi nag kon mooy nga am wér-gu-yaram woo xam ne yëg nga ne mën ngaa dem ba noppi itam yor nga loo mën a fere ci yoon wi di ci dund di ci def say fere ba egg màkk ba def sak aj donte sax doo dese paas bu la mën a dellu si téewul am ñu wax ne kon war ngaa dem di ci topp mooy yoon wi am sécurité wóor ñuy doggaale nit ñi di leen rey wala di jël seen alal yooyu amu fi waaye su fekkee yoon wi dafa wóoladiku ci anam ko mel noonu bañ xam ko ba tey kon safay say sart dafay des jigéen nag danañ ci sart moom mu ànd ak ku mu araamanteel jigéen pour mu mën a aji dañ ciy sart mu ànd ak ku mel ne boroom këram wala ku mel ne rakkam wala magam ñoo xam daal mënuñoo dencante ci ab sëy wala bokk nit ñu ñu wóolu ñu ñu wóolu seenu maanu mu àndante ak ñoom loolu bokk na ci li tax jigéen ji mën a dem def aj googu waaye moom ñaari ñëpp la war muy góor gi muy jigéen ji bu sart yi dajee waaye jigéen nag dañ ci dolli sartu moom mu ànd ak kum araamanteel wala mu ànd ak ñu doy ñu wóor bu dee fii ci Sénégal nag commission bi ngay àndal loolu doy na sëkk ak sàmm ndax fu foo nekk yow rek doo fa nekk mbooloo nga fay nekkal kon daanaka mën naa wecc loolu su ko defee kon sart yi mooy daje ci nit ki aj daal di koy war su ci dajee nag wax naa léegi ci ne ci man gi mooy alal ci la bokk ndax booy aj lu néew néew da nga dépenser dara waaye nag subaa dañuy bëgg la muy dépenser ci aj gi lépp mu góorgóorlu ba defe ko ci alal joo xam ne ju ara ju dagan lay doon nga xam ne maanaam alal ju lew la daal ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam moo ne inna allaha taala tayibun te laa yaqbalu illa tayiban wa isaa xaraja arrajulu min nafaqati alxabis fa yadacu rajlahu fi lxirs fa yunaadi naa labbayka allahumma labbayk naadaahu munaadin min assamaa ne ko yow laa labayka wala saadayka ndax zaaduka xaraamun wa nafaxatuka xaraamun kon wa xajjuka xayru mabruur nee na yàlla day lu teey la te du nangu ludul lu teey nee nit di bu génnee di aji te dépense bi muy dépense di alal ju araam yoo xam ne dëgganut alal ju bon la bu eggee teg tànkam natta naa yàlla labayka allahuma labayka maa ngi lay wuy si neen dana am kàddu gu woote ci wàlluk asamaan doonte gisu ko dégg ko ne ko yow kat laa labbayka wala saadayka yow moom na nga teey parce que yàlla wuyuwu la nanguwul sa woote te itam nanguwul sa wuy si lu tax loolu ndax zaaduka xaraamun sab yóbbal dafa araam wa nafaqatuka xaraamun li ngay dépenser lépp dara daganu ci kon waxa wa xajjuka xayru mabruur sak aj yow kenn nanguwu ko mu continuer rek moom di def li muy def te fekk li muy def du ko dikke dara kon na fexe ba lim ciy dépensé ci aj gi lépp mu nekk loo xam ne lu lew lay doon te teey kon loolu ci mat a bàyyi xel la kon li ngay dépensé ci aj gi ci sart yi nga mën na dem la la bokk waaye de bul ko sàcc bul ko tënee bul ko yalwaan yalwaan moom bu fekkee fekkutoon muy sa métier doo doo da yalwaani ngir mën a aji déedéet. bu fekkee ne ci yelwaan rek nga daan dund nag te yow soriwoo maaka jàpp nga ne mën ngaa màjjal ba egg kon mën ngaa màjjal ba egg dem aj waaye nag baaxoo ko def du woon sa métier bëgg aji rek tax nga ne may màjjàllu ma aji moom boo dañ na la say sart kon matagut kon sart yu daal mooy yi nga xam ne moom bu dajee ci nit ki ñu wax ne war naa aji te jamono boobu itam bëggatuñ sax mu di ko yeexee ngir bañ ngànt di ko dabaat ci loolu aj nag dafay lu am solo ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam nee na alxajjul mabruur laysa lahul jasa illa al janna xajjul mabruur nee na xajjul mabruur laysa lahul jasa illa al janna nee na amul genn pay rek gudul aljanna xajjul mabruur rek am nañu ko firi wax ne mooy aj goo xam ne ndax dafa wax ci beneen xadis ne man xajja falam yarfus walam yashfuq rajaa min addunubi ka yowmu waladathu ummu képp ko aj te def ci yenn caaxaan ci jigéen wala genn kàccoor yi jikko kooku dana dellu këram set wecc ci ay bàkkaar ba mel ni bis ba mu juddoo woon dafa am ñoo xam ne bi ñu firi ñoom xajjul mabruur aj googu loolu lañ ko tekkee mooy aj goo xam ne defoo ci dara lu ñaaw ci yin lay tere waaye daal boo bëggee mu gën a gàtt rek te gën a jot mooy nga wax rek ne xajjul mabruur daal mooy aj gu yàlla nangu gépp aj daal gu yàlla nangu laysa lahul jasa illa aljanna amul genn pay rek gudul aljanna moo tax kon dafay lu am solo wax dëgg jëf la ju metti nag aj moom dafa metti dafa metti parce que diggante yi ngay dox dafa metti daal waaye nag yiw yi moom moo toll noonu moo tax ko yàlla mën loo rek mu góorgóorlu ci bu baax a baax a baax su ko defee kon ginnaaw dem nañ ba ne kii la war jullit la gor la te itam ànd na ak xelam kàllafe na te itam mën na ko ci wér-gu-yaramam mën na ko ci alalam te it wóolu na yoon wi kon kooku mooy ki war a dem kon bu demee war a aj nan la war a aje loolu dañ ko war a waxtaane te loolu dañ ciy dellu ci ni ko yonente bi alayhi salaatu salaam jàngalee ndax daf ne xuzu anni manasikakum ndax fa laali laa alqaakum baada aamikum hada seen li ngeen war a aje jële leen ko ci man mooy roye leen ko ci man ndax wóoruma kat ba xam déwén dinaa fi dajawaat ak yéen wala déet mooy xajatul wadaax boobu ci la ko leeral wax ne daal jàpp leen bu baax nag melaw aj ci ni nga xam ne ne laa ko defee ndax wóorut ba xam déwén dinaa fi daje ak yéen wala déet kon dañ koy defee ni ko yonente bi alayhi salaatu wasalaam jàngalee noonu nag ci lañ jëm ak yéen ngir waxtaane ko kon ñu wax aj gi niñ ko bëgg a tërale ci am njàngale ndax aj dafa am ñetti façon ajin yu mën a def ba ñeent sax yooyu danañ ko wax bu noppee tam ñu xam leen aj dafa am ñeenti arkaan ñeenti ponk mooy ñeenti farata yoo xam ne du mën a ñàkk nga def ko yow mi aj soo ko bàyyee ba waxtoom jàll sa aj dafay yàqu da ngay mel ni ku defutoon dara kon ñeent yooyu bëgg ñu bëgg nañu leen jël benn par benn jàngale leen waaye nag benn bu ci nekk dafa am yum àndal bi ci njëkk muy armal ci ponk yi la bokk armal moom mooy yéene waaye dafa am lu mu àndal ci ay warugar yoo xam ne soo leen bàyyee alamaan daf lay war mooy rey am xadd yi mooy li tàmbale ci giléem wala nag wala xar wala béy soo ci mënul lenn nga woor fukki fan ñetti fan yi nga woore ko foofa ca màkk boo ñibbee sa kër woor juróom-ñaari fan salaasata ayaamin fi lajji wa sabxatin isa rajatum tilka asratun kaamila noonu ko alquran waxe armal kon kenn la ci ponki aj dafa am nag lu mu àndal ci ay waajibaat noonu ma ko waxee muy yoo xam ne ay warugar la yoo xam ne soo ko bàyyee am hadd yu def lay war am yum àndal ci ay sunna ak yu ñu sopp yoo xam ne moom bàyyi ko du tax sa aj yàqu te itam du tax am hadd yu war la dégg nga ponkum ñaareel bi ci topp mooy tawaaful ifaada muy wër gi ngay wër kaaba gi ci bisu tabaski bi moom itam ponk la mooy farata la mooy soo ko bàyyee moom itam sa aj du mën a baax doo mën a yeewee ku mukk ñi bi fi nga dëkkoon te defoo ko moom itam dafa am lu mu àndal ci ay warugar ay waajibaat yoo xam ne soo leen bàyyee wër gi dafay mel ni moogloo di fa tey wër gi day yàqu am lu mu àndal ci ay sunna ak luñ sopp lu néew liñ ci sopp moom bariwut su ko defee yooyu itam moom moom la àndal ah bu ñetteel bi muy asan yu bayna safa wal marwa muy dox ngay dox diggante safa ak marwa moom itam ponk la mooy farata la soo ko bàyyee moom itam aj gi lépp dafay yàqu yaa ko ajiwutoon yéen a yem moom itam am na lum àndal ci ay warigar mooy ay waajibaat yoo xam ne du mën a ñàkk soo ko deful dox gi safaa ak maroo day yàqu am na lu mu àndal tam ci ay sunna ak luñ sopp yooyu nag moom bëgg nañ ko waaye ñàkk kaa def du tax mu yàq jëf ja du tax dox ga safaa ak maroo daal di yàqu ba ci topp mooy at taxawaa arafa mooy taxawaayu arafa ca guddi ga muy taxawaayu guddi ga moom itam ponk la mooy farata la moom itam day loo xam ne su la rawee nga aji màkk te la tàmbalee ba jant soo ba ca fajar gi jaaroo ko fa ci bisub juróom-ñeenteel bi yaa ko ajuutoon yéen a yem yonente bi ne alxajju arafa moom tam am na lu mu àndal ci ay waajibaat muy ay warugar yoo xam ne boo leen bàyyee da nga tuur deret am haddi yu def lay war am na yu mu àndal tam ci ay sunna ak yun sopp su ko defee ne kon ñu jékki-jékki lim mboolem warugar yi aju ci aj daal di jékki-jékki lim mboolem sunna yi aju ci aj lim tam mboolem mustahabaat yi sopp ci aj du tax nit ki mën koo jàpp na mu ko war a jàppe dëgg-dëgg moo tax dañoo bëgg ponk buñ ci jël nga xam ne moom farata la daal di jàngale waale nag la aju ci moom ci ay waajubaat jàngale waale la aju ci moom ci ay sunna jàngale waale la aju ci moom ci lu ñu sopp su ko defee moom mu mën a féete boor suñ jëlee beneen ponk itam muy beneen farata moom itam daa ciy sësale jàngale la aju ci moom ci ay waajibaat ak la aju ci moom ci ay sunna ak la aju ci moom ci yun sopp bam jeex jàpp nañ daal loolu ci la ko nit ki gën a mën a jàppee ci ñu bëgg a taxaw rek lim mboolem li aju ci aj ci ay waajibaat ak i sunna ndax ñàkk gi ñàkk bokk béréb yu yu dëkk du yomb nga jàpp ko ci sa xel kon noonu lañ ko fas yéene tërale ñeenti ponk yi daal bu ci nekk buñ ko indee danañu indi moom la aju ci moom bam jeex tàkk ci ay waajibaat ak i sunna ak i yun sopp su ko defee buñ ko jàngalee noonu ba mu jeex nag ñu door a jël nag yow mi nga xam ne da ngaa bëgg a aj te bàyyi ko fu mel ne Sénégal gii tàmbali ak yow wax la étape par étape fenn fu fi ne boo fa tollee la nga war a def la nga war a def ak la ca topp ba bés ak aj di jeex nga xam ne maanaam melaw aj daal danañ ko jël a ba sedd jàngal la ko insha allahu taala waaye balaa loolu dañ dañu bëgg a jàngale ponk yi ak ponk bu nekk. lam àndal ci ay waajibaat ak i sunna ak i mandoobaat kon wax nañ ne nag bi ci njëkk moom mooy armal armal nag dafa am jamono am tam béréb dafa am lu ñuy wax miiqaat miiqaatu zamaan dafa am miiqaatul makaan dafa am mooy soo bëggee armal aj dafa am jamono joo koy sañee jamono joo xam ne ci ngay xame ne egg nga ci jamono ji nga sañ a tàmbali sak aj soo demee ba dugg ci jamono ji nga sañ a tàmbali sak aj itam dafa am béréb boo xam ne fa ngay sañ a tàmbalee sak aj ci yow ki nga doon ak fi nga nekk jëm màkk maanaam réew ma nga nekkee jëm màkk daf ciy dépendre boo demee bay dugg màkka ak foo mën a bàyyi ko bunt yi ubbiku ci màkk yépp foofu nit jóge di dugg màkka rek danañ ko wax béréb ba nga xam ne bu fa eggee fa la war a armale ba ci yow mi nga xam ne da ngaa nekk biir màkk sax boo nekkee ca xuróom ja dañ la wax ne dañuy bëgg nga dem ca Kaaba ga boo ko mënee armale fa soo nikkul ca xuróom ja it fa nga nekk ci biir màkk mën nga faa armale dem kon dafa am jamono jooy sañ a armal ak béréb booy sañ a armale kon bala ñuy ñëw ci armal dañuy wax ci yan jamono nga koy man ak ban béréb nga koy defee kon armal yaa ngi koy man ci bu ñu woree bu weeru koor wi jeexee ba ñu dugg shawal bis bu njëkk bi rek buñ ci tàbbee weeri aj dugg si na nga xam ne weeru koorite wi lépp ak weeru digg bi ci weeri aj la bokk ak fukki fan yi nga xam ne moo njëkk ci weeru tabaski donte sax am na boroom xam-xam yi wax ne weeru tabaski lépp tam ci aj la bokk ci weeri aj la bokk kon jàppal ne weeru koor yi ak weeru digg ak fukki fan yi njëkk ci tabaski lépp yaa ngi ci biir weeri aj sañ ngaa armal aj donte sax am na ñu ne sax boo armaloon ci koor gi du tee mu baax am na sax ñu wax loolu waaye loolu kon taamuwuñ ko liñ bëgg moom armal aj moom bala nga koo def nañu dugg shawal nañu wari soo teelee armal nag da ngay sonn ndax xam nga bu ñu waree rek nga daal di armal aj lu mat ñaari weer ak fukki fan yoo xam ne yu bari dañ la koy tere dootoo ko sañ loolu moom ñi dëddu àdduna dëgg soo fi soo fi yoon yi am nañu ko ci daan def waaye suñ jamono ji moom ak suñ classe yi mel ni ñaari ci ëpp waxuma sax weeru digg wi waaye weeru digg wi sax dañ bàyyi ba mu jeex ba dugg weeru tabaski bi door a armalaaj ngir rek daw yenn coono yi nga xam ne moo ciy nekk waaye kon xamal ne ñaari weer yooyu ak fukki fan yi lépp boo ci nekk yaa ngi ci weer aj sañ nga armal aj kon dafa am jamono joo ko saña ak joo ko sañawul ci jamono jooju nag ci ngay sañ a armale bi nga sañee armal ba ne dangaa bëgg a armal mooy dangaa bëgg a tàmbali sag aj ana fan nag nga ko sañ a tàmbalee subaa dañuy laaj day laaj ñu xam yow foone fan nga nekk ci àddina jëm màkk wan yoon ci ngay jaar ngir dem màkk yoon woowu ngay jaar ngir dugg màkka dañ koy xam door laa mën a wax ne la kon boo egsi ci béréb sàngam ci ngay tàmbalee sak aj mooy ci ngay armale su ko defee kon day laaj béréb yooyu ñu wax ko bu fekkee ñi nga xam ne dañuy faral di bàyyi ko fii ci Sénégal ñoom jon fa la ñuy armale jon fa léegi ñu ngi koy wax raabix fu mel ne misra mu Égypte ak maghrib maghrib sax nit ñi dañ koy wax jibli ci Maroc waaye mën ngaa waxaale mboolem réew yi sowu bi nii rek ñun ñi Gàmbi ak Sénégal ak yëpp ci lañ bokk ñoo ñëpp jon fa la ñu armale ñu ngi ko gën a miine léegi ci raabix béréb boobu mooy bi nga xam ne ci la ñu armale bu fekkee ñun waa Sénégal nag ñun at yi yëpp dañuy def direct madinatul munawwara bu ñu jógee Sénégal rek Madina la ñu wàcc am fa ay fan door a ñëw màkk ndax dañuy njëkk a ziyaare yonent bi alayhi salaatu wa salaam te dañuy bëgg bu ñu noppee ci aj gi rek mën a yeewi ku ñibbisi ndax am nañu koy mujjee ñi nga xam ne dañoo jógee Madinatul Munawwara nag ñoom ñooy armale fi ñuy wax sul xulayfa ab yaaru ali lañ ko gën a woowe léegi ñu jóge Madinatul Munawwara ñoom foofa lañu armale door a dugg màkk ni ma ko waxee léegi ñun ñi nga xam ne ñoo bàyyikoo ci soow bi muy réewi Afrique yi ak fu mel ne Égypte te ñu war a armele fi ñuy wax Jufa ñun ñu mel ne Sénégal yi ñi ma wax ne nag dañuy ñun dañ njëkk a dem Madina dooru ñëw màkk suñ jógee Madinatul Munawwara bay ñëw màkk dañoo sopp ñu ànd ak waa Madinatul Munawwara armal fa nga xam ne ñoom fa la ñuy armale waaye bu ñu neexee sax mën nañ koo bañ a def ndax ñun bu ñu paasee fi waa madinatul munawwara di armale du tee buñ dikkee ba ci kanam fi la ñuy door a jot jon fa bii nga xam ne moo nekkoon suñ bérébu armal dëgg-dëgg fi ñuy wax xarunul manazil nga xam ne ñu ngi wax saylul kabir léegi waa naj dafa la ñuy armale ak képp koo xam ne da ngaa jóge faneen ci àddina te jaare wet googu rek foofu ngay armale ñi nga xam ne dañoo jaar ci fi ñuy wax zaatu xirq ñi jóge iraq ak xarasaan ñooñu foofu la ñuy armale ak képp ku wàcc aw yoonam ba jaare foofu ñooñu jaare rek moo ñooñu dañuy daal di mujj bokk fenn fu ñu war a armale fi ñuy wax yalam lam ñu koy wax sang bi léegi waa yaman ak waa hind fa la ñuy armale ak képp ku jaare yow woon yoon woowu képp koo ci xam ne nag dafa jaare madinatul munawara comme noonu mu wax léegi ndax ñenn ñi dañ fay njëkk a jaar dañ koy jiital kon nañ xam ne képp ku fa jaar rek wàcc nga sa béréb ba nga waroon a armale kon léegi yaa ngi dépendre nag léegi ci waa madinatul munawara fa waa madina di armale fa ngay armale ba mu des nag ñun waa jonfa ñun ñii di armale jonfa buñ jaaroon madina itam du tee ñun mën nañoo paase fi waa madina yi armale te du tee ñu jot suñu armalukaay ca kanam dañoo sopp rek ñun ñu armale fi waa Madina yi armale waaye suñu béréb bi ñu war a armale teewul ci même yoon woowu la kon suñu neexee ñun mën nañ koo bañ a def kon maa ngi lay wax ne yow mi nga xam ne nekkoo màkk jóge fenn ci àddina jëm si màkk di aj si béréb yi mooy yi nga xam ne moo ubbiku ci màkk muy Jufa Zul Xulayfa Zaatu Irq Yalamlam ak Qarnul Manazil foofu waaye jaare rek doonte sax dëkkul côté boobu waaye foofa la jaare rek léegi moo ñooñu dañuy daal di yem ab àtte su ma la ko doon misaal fii ci Touba bu ma waxee ne jumaa ji mooy Kaaba gi ma wax ne Touba mooy Màkka daal ci misaal kon damay wax ne bunt yi fu ubbi ko fi fay jaar rek ak fa nga war a armale nga xam ne dama lay mën a wax ne kon ku jóge Dakar ak Thiès ak Bambey ba jaar Diourbel ba ci sax ñu jóge Kaolack ñoo ñëpp ñooy bokk wenn yoon kon ñooy bokk fenn fon armale bu fekkoon ne seen miix day ngaabu ma ne la kon ñoom ñëpp ñu eggee ngaabu fa la ñuy armale ndax ñoo bokk wenn yoon ñi nga xam ne dañoo jóge fu mel ni Mauritanie nag ak Ndar ak Louga ak Kébémer ba jaar Daarul Moxti da ngay wax ne kon ñoom ak ñooñu ñooy bokk fenn fu ñu armale ñi nga xam ne ñoo jóge Linguère Daaru Jolof ak Bulal ak Daaru Salaam Darmaak yooyu yi nekk ci yoon yëpp ba ba ngay ñëw di dugg Tuubaa di romb Ndindi da ngay wax ne ñoom ñëpp rek ñooy bokk wenn yoon woo xam ne fa la ñuy armale nga xam ne bunt yi nga xam ne ñoo ubbiku ci Tuubaa daal foofu waaye jaare rek yaa ngi ñooñu yéenay bokk fenn fu ngeen war a armale nga xam ne su fekkoon ne da ngaa dëkk Ndakaaru waaye ndar nga jaare ji ba tax nga génn si yoonu daaru rek yaa ngi waa daaru léegi yéen a bokk àtte foofu ngeen war foofa nga war a armale moo tax ma ne la ñuy ñëpp képp ku ci jaare Madinatul Munawwara ngir jiital sag siyaare gi nga war a siyaare yonent bi alayhi salaatu wasalaam léegi yaa ngi waa Madina yéenay bokk fenn foo xam ne fi ngeen di armale ba mu des ñii ma la wax muy raabiq ndax moom ma nga ca kanam kon ñi jógee ci sowu bi ñoom buñ dikkoon ba fii waa Madina di armale itam buñ ko rombee du tee danañ egg ci béréb ba nga xam ne moom lañ leen rëddaloon kon yow mi nga xam ne yaa dangaa dëkk nag dangaa nekk biir màkk benn nga dëkk fi wala mu fekk la fi yow laay wax kon yow boo nekkee ci xurum ji muy li li wër Kaaba gi li ko jege dañuy bëgg sax nga ñëw ba ci jàkka ji armale fi soo ko mënee su fekkee nekkoo ci xurum ji nag nga xam ne yaa ngi ci xel ji waaye yaa ngi ci màkka kon mën ngaa armale fa nga nekk du tee ñëw ci kaaba gi kon loolu mooy miqaat yi bi nga xam ne zamaan la ak makkaan la bu dee waxtu wi nga sañ a tàmbali sak aj mooy bu ñu waree ci li gën a wóor bu dee béréb bi nga war a tàmbalee sak aj nag moom wax naa la ko ba ñi nga xam ne dañuy dugg bato sax bu tee buñ tollee ba demee ba ci béréb bañ war a armale danañ leen ko yëgal ci biir teewul ñu ne ku ci mën a dikk ba ci tefesug jidda itam ma armale fa dutee baax na kon bérébu armalukaay yi moom mi ngi noonu kon yow egg nga ci jamono bi nga sañ a armale muy wari nañ dikk nga ci béréb bi nga sañ a armale benn ci miiqa yii bu mu ci mën a doon kon li la dese moom mooy armal léegi nag kon ana lan moom mooy armal nañ ko wax armal moom mooy yéene dafa am ñu koy ñàkk xam ba di ko jàppe noonu nga soloo noonu loolu corug armal la tudd waaye armal moom mooy yéene rek wax gi nga wax fas ci sa xol ne fas ngaa yéene def aj gii loolu mooy armal moo xam da ngaa yéene nag benn ci ñetti façon yi nga xam ne mënees na koo def ba ñeent comme ci armal la toll nag muy yéene aj kon ñu wax la xeeti aj yi nga mën a def ak ban nga ci bëgg a def ak biñ ci bëgg a def noo koy defee ndax mën ngaa def li ñuy wax tamaton mën ngaa def li ñuy wax xiraan mën ngaa def li ñuy wax irdaaf mën ngaa def li ñuy wax ifraat su fekkee da ngay def tamaton yaa ngi wax labbayka allahumma umratan wax nga sa borom ne ko dikk naa fas na maa yéene aj si néeg bii ñaan yàlla mu nangul la ko te yombalal la ko tamaton nag baat bi li muy tekk mooy lu lu nooflaaye ndax da boo ko xoolee ni façon bi nga koy defee dafa dafa nooflaaye ba mu ëpp moo tax sax soo ko defee am xadd yu daf lay war bu fekkee dëkkoo màgg tamaton mooy nga dikk armal omra boo noppee ci omra daal di toog sañaat lépp lu ñu la tere woon bañ egg ci yow ma tarwiya nga door a armal aj ànd ak nit ñi def aj ci misaal bu fekkoon ne ñaari nit dañoo wari dugg weeru kori ñaari nit dikk di aj kenn ki armal ifraat kenn ki armal tamaton ki armal ifraat daf ne labbayka allahumma xajjan ndax ifraat mooy nga yéene aj kase def ko ba mu egg su eggee nag moom ci fiqu malik sopp nañ nga defa umra sësala ci waaye ba la sobet mën nga ko bañ a def ba la neexee waaye moom mooy nga yéene aju kase rek def ko ba mu egg te loolu boo ko defee am hadiyu du la war tuur deret mën naa ñàkk ci yow léegi nag su fekkoon nit ki dafa dikk armal tamaton yow nga armal ifraat da ngeen di wuute ndax ki armal def tamaton moom umra lay yéene umra su fekkee xatul waxtu rek mën nga ko cee def ndax mooy bi nga yéenee rek muy armal gi da ngay daal di wër kaaba gi juróom-ñaari yoon julli ñaar rakk ci maqaama ibrahim dem dox safa ak marwa noppi daal di wattu mu jeex nga xam ne loolu su fekkee xatul béréb yi xatut waxtu rek da nga ci def loolu lépp sa umra daal di jeex nga daal di yeewi kuwaat mooy mboolem yi doon tere nga sañaat ko saña laal parfum saña joteeg sa soxna saña sol lu ñaw mboolem yi tere woon rek yooyu dañ ci dikk ndax dañ ko jàngalewul waaye dañ ko wax ci kanam yooyu yëpp da nga koy sañaat ba weeru kore wi jeex tàkk ba weeru digg wi jeex tàkk bañ dugg weeru tabaski ba egg ci yow ma tarwiya muy juróom-ñetteelu fan ba nga door a nag aramal aj door a tàmbaliwaat aj nag door a nag doon koo xam ne léegi sañatoo mboolem yi la tere woon ba sa aj egg te xam nga ne foofu muy juróom-ñetteelu fan bi nga aramalaat aj ñetti fan ngay defaat wala ñeent gën ngaa bari sa aj jeex ka nga xam ne nag moo yow yéen a bokk wenn waxtu wu ngeen armale tam moom mu defoon ifraat depuis boobu ba tey yooyu ñu la terewoon yépp moom sañu ci dara biir weeru kori wa ak weeru digg wa ak fukki ak juróom-ñetti fan yim am ci tabaski lépp moom ma ngay wéy ñu di ko tere mboolem lañ ko tere woon ba egsi ci yow ma tarwiya ak yow ma yow ma arafa ba ni ajam ba ba ni mu yeewi ko ci bisu tabaski bi yeewi ko bu njëkk door a tàmbalee sañ yenn yi xam nga yow mi nga xam ne ca bis ba ngeen bokkee armal rek ca nga def la ñuy wax omra rek dellu sañaat lépp moom nag mu wéy di ñàkk sañ lépp diiru ñaari weer wi ak fukki fan ba aj gi jeex xam nga kon kooku moo la gën a sonn moo tax tamaton dafa nekk lu lu nooflaay daal lu lu ñàkk coona moo tax ñu koy woowee sax tamaton tur yi loolu lay tekki ifraat nag moom mooy nga yéene aj kase rek am na ñuy def ifraat nag waaye ñu ci bari itam duñ teel a armal dañuy bàyyi ba dugg weeru tabaski door a armal ndax xam nga tam day metti am lu ñuy wax kon xiraan xiraan nag mooy nga boole ñaar yëpp lënkale aj ak omra moom boo koy def da ngay wax labbayka allahuma xajjan wa omratan wax sa borom ne ko wuyis naa la ngir aj sa néeg bii fas yéene def aj ak omra nga xam ne da nga leen a boole da nga boole aj ak omra nga xam ne soo noppee da ngay am tiyaabay aj ak tiyaabay omra ki yéenewul ifraat nag muy aj kasem bu noppee tiyaabay aj kase lay am bu bëggee tiyaabay omra day yéene omra sësala ca balaa ñibbi ke defoon tamaton tamaton moom itam dana am tiyaabay aj ak omra ndax daa jiital omra ba nee ba toll ci jamono aj dëgg-dëgg mu yéene war aj dugal ca boole ca nga xam ne mujj na def ñaar yëpp xiraat nag moom daf koy daf daf leen la lënkale ci njëlbéen nga rek moom ba muy armal maanaam ba muy yéene rek la wax ne fas na maa yéene def aj ak omra daal leen boole ñoom ñaari ñëpp banam jeexe tamatoo nag moom dafa yéene omra yi kase mu jeex ci bis bi mu noppalu bañ ba aj gi gën a jege mu door a yéene aj nga xam ne leen taqaliwul loolu moo leen wutale waaye ki def tamatoo ak ki def xiraan kenn ku ci nekk day am aj ak omra ki def ifraat nag muy aj kase moom aj kase lay am moo tax ci fiqu malik ifraat lañ gën a sopp waaye teewul dañuy bëgg boo noppee sopp nañ nga def omra sëse la ci bala ngaa ñibbi am na lu ñuy wax irdaaf muy lënkale moom daanaka moo xiraan benn lañ irdaaf mooy moom itam bi nga tàmbalee danga boolewul aj ak omra benn bi rek nga njëkke da nga ne naa omra rek waaye fi nga yéenee omra ba wër néeg bi laataa sa wër néeg bi jeex laataa juróom-ñaari yoon yi jeex rek nga yéenewaat ci sa xol ne yéene naa ci aj boole naa ci aj wala fi nga wëree néeg bi ba juróom-ñaari yoon yi mat laataa ngay julli ñaar ak ci maqaama Ibrahim rek nga dugal aj ci biir mu fekk si ko xiraan nag kon moog ifraat benn lañ non xiraan ak ak irdaaf laa wax ñoom ñaar benn lañ xiraan moom dangaa wax rek ne yéene naa aj ak omra irdaaf nag dana yéene naa omra laataa omra gi jeex mu ne boolewaat naa ci aj loolu rek la waaye daanaka benn lañ su ko defee kon booy aj ñetti façon yi moo am benn nga def tamaton mu yéene omra kase ba mu egg nga toog ba aj gën a jege nga door yéene aj boole ci bi ci des moom mooy xaraan mooy ci sens ci ci njëlbeen gi rek nga yéene aj ak omra boole leen defandoo leen bi ko ñetteel mooy ifraat mooy nga yéene aj kase def ko ba mu jeex soo dee omra omra soo omrawul ñibbi kon ñett yooyu yëpp yu mën a nekk la kon yow miy bëgg a armal yow miy bëgg a yéene ngir def aj yaa xam ban ngay def su fekkee da ngaa nekk ci fiqu maalik nag te xam nga ne mooy li ñu Sëriñ Tuubaa dénk aleykum bil malikiya la wax ndax fa innaha mutahharatun munawwara kon ifraat lañuy taamu ci yow ndax moom la fiqu maalik gën a taamu su ko noppee nag danañ sopp nga omra sësale ca bala ngaa ñibbi kon benn boo jël ci yii rek xamal ne booy yéene moom ngay fas ne fas nga ko yéene def te yéene jooju moom mooy armal armal mooy nga wax ne yàlla fas na maa yéene aj sa néeg bii boole ci leeral gan façon aj ngay def ndax tamaton la wala xiraan la wala irdaaf la su ko defee kon armal mooy yéene nekk farata boo xam ne mënta ñàkk boo ko deful sa aj du mën a baax bu lu dara yonente bi dana innamal amalu binniyaati kon loolu mënta ñàkk su ko defee nag moom dafa am ay waajibaat yu taq ci moom ay warugar yu taq ci moom yoo xam ne boo ko bàyyee da ngay am alamaan am ay sunna yu taq ci moom yu ñu bëgg donte sax bàyyi ko moom lu tax alamaan war la am ay mandubaar yu taq ci moom yu ñu sopp moom itam nga def ko donte boo ko bàyyee moom dara du la war yooyu nag dañ koy leeral moom itam ba mat dooru koo génn waaw dañuy bëgg a leeral li aju ci moom dooru koo génn kon léegi ñu ngi ci armal war a wax ay waajibaatam ak ay sunnaam ak i mandubaatam armal wax naa ko mooy yéene ji ngay yéene la ci aju cay waragar nag la ci jiitu mooy nga def ifraat mooy soo armal nga armal anam gi nga xam ne mooy ifraat mooy yéene aj kase bu noppee bay ombre nga door a ombre soo ombrewul nga ñibbi nga xam ne soo ko deful def li ñuy wax xiraan wala tamaton am hadd yu def lay war bi ko ñaareel ci ay waru garam moom armal mooy nga armele ca zamiq nga armele ca béréb bañ la wax ne la nanga ca armele ci yow ki nga doon ak fa nga nekk jëm si màkk am na fu ñu la wax ne la boo fa egsee foofa fa nga war a armale nga xam ne armale ci sa miiqa biñ la sant ci warugar yi la bokk yi aju ci armal nga xam ne soo ko bàyyee moom alamaan daf lay war su fekkee dangaa romb fa nga war a armale door a armal am haddi yu dana la war te mooy li tàmbalee ci giléem wala nag wala xar wala bëy soo ko tëlee war fukki fan kon li gën mooy soo xasee romb sa miixa te armalagoo boo bañee haddi yu moom war la na nga wàññikuwaat ba ci sa miixa nga door a armal door a ñu dellusiwaat biir màkk waaye soo rombee sa miixa ba noppi di armal moom ginnaaw xas nga armal rek moom haddi mi daf lay war te du tax sax ngay delluwaat ba ci sa miixa di armalaat moom da ngay continuer rek te dafa haddi yu moom kon loolu mooy ñaareelu warugar yi nga xam ne moom moo aju ci armal bi ci njëkk mooy nga def aj gi ñuy wax ifraat soo ko deful am xadd yu dana la war di ci topp mooy nga fexe góorgóorlu ba armale ci béréb bañ la wax ne la fa nga war a armale bi ci topp mooy ab talbiya mooy wax gi nga war di wax labbayka ci soo armalee ndax soo xasee armal la ñu bëgg nga tàmbali wax labbayka labbayka allahumma laka labbayka mu mel ne rek zikkar buñ la jox ne la dee ko wax nga xam ne ci fiqu Maalik dootu ko bàyyi ba ba ñuy egg ca yawma arafa bis juróom-ñeenteelu fan ba ci tabaski buñ nee ba tisbaar jot ba nga dem ci jullikaay ba foofu fa nga koy door a bàyyee ci fiqu Maalik nga xam ne li des ci sag aj dootu ko waxati nga xam ne li des ci sag aj moom dootu ko waxati waaye diir boobu bépp faaw nga nekk di wax labbayka soo ko bàyyee rek bàyyee nga waru gar woo xam ne faaw rek alamaan daal lay war su boobaa nee nañ sax su fekkee da ngaa armal te waxoo ko ba bés bu njëkk boobu jàll rek armal bi dana la war maanaam haddi mi dana la war am ñu wax ne déedéet bu fekkee armal nga waxuma bés bi jàll waaye boo armalee ba genn wàll bés bi jàll te waxoo ko rek haddi moom daf lay war boo armalee ba genn wàll bés bi jàll te jotoo ko wax rek haddi moom daf lay war kon da ngay góorgóorlu ba fi nga armale rek nga boole ko tàmbali di def talbiya boobu muy labbayka yaa ngi koy bàyyi nag ca yow ma arafa nee ba tisbaar jot ba nga dem ci jullikaay ba foofu fa nga koy door a bàyyee nga xam ne la des ci aj gi lépp mën nga ko bañ a waxati kon moom itam ci warugar yi nga xam ne moo aju ci armal ci la bokk bi ko ñetteelu mooy at tawaaf mooy tawaaful xudum tawaaful xudum mi ngi la war yow mi nga xam ne danga dikk màkka ngir aj si nga xam ne dëkkoo màkk yaay def li ñuy wax tawaaful xudum ci warugar yi aju ci armal ci la bokk moom tam soo ko bàyyee am xadd yu daf lay war soo teelee ñu màkk xatut nga xam ne diggante bi xaj na fi soo ko deful rek am xadd yu dana la war tawaaful xudum yaa ngi koy def booy door a ñëw yow mi nga xam ne dangaa ñëw di aj nag danga am ñetti wër yu ràññi ko yoo xam ne danga ko def muy li ñuy wax tawaaful xudum bi ak li ñuy wax tawaaful ifaada nga xam ne mooy gi nga xam ne mooy wëru farata gi ngay def ci bisu tabaski bi danañ ci dikk xamle ko ak li ñuy wax tawaaful wadaa muy wëru tàggatoo gi ngay def booy bëgg ñibbi loolu ñetti wër yu ràññi ko la yoo xam ne yow mi nga xam ne dangaa aj si danga ko def lu bokkut ak nag wër yu bari yi nga xam ne danga ko def ngir mu wecc say naafila ndax yow mi nga xam ne dëkkoo màkk dañ laa wax ne la loo nar a jekki toog di ko naafile ci ay rakaan rek dee ko wër kaaba gi ndax mu ëpp tiyaaba ci yow te léegi nga ñibbi dootu am kaaba goo wër kon sag wër kaaba dana bari lool waaye nag daf ci am ñetti wër yu ràññi ko yoo xam ne ba ci nekk day ànd ak julli ñaar rakaan ci maqaama Ibrahim bii ma la wax nag muy tawaaful xuddoom ci la bokk ci yow mi nga xam ne dëkkoo màkk da ngaa aj si te moom itam bu ñu egg ci ay sunnaam danañ ko wax ñetti yoonu njëkk yi dañuy bëgg nga ñukk ko ndax yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne mi ngi madina yëfër yi nga xam ne ñoom ñoo nekkoon màkka dañ daan wax ñi nga xam ne ñoo ci daan jóge màkka di dem madina ak dellusi dañ daan wax naan waa màkka day dañ daan wax naan waa madina day madina neexul ci ñoom ndax ña nga jeex tàkk yooyu noonu madina daal neexul ci ñoom ba loolu doon loo xam ne egsi woon na ci julli ñi bañ dégg ko moo tax bi ñu demee di aj yonente bi ne ñetti yoonu njëkk yi nañu ko ñukk bañ xam ne néewuñu kàttan ndax ku néew kàttan du daw dañ ciy boole sax sa mbaggum day joor nga xaw ko génnee noonu yooyu yëpp rek ay kii la noonu pour wane leen rek am nañ kàttan nii waaw nga xam ne génnee ko nga génnee sa mbaggum day joor booy wër kaaba gi ci tawaaful xudóom rek nga koy defee waaye tawaaful ifaada sax doo ko def tawaaful ifaada day fekk nga yewi ko sa yewi ku njëkk sañ a sangu sol lu rafet lu mel la nga soloon la maanaam yére yu ñaw daal waaye ci tawaaful xudum bi la ñuy bëgg nga soloo noonu wala bi sa mel ne mbaggum ndeyjoor bi nga génnee ko te ñett yoonu njëkk yi nga ñukk ko kon nañ xam ne tawaaful xudum mi ngi bokk ci waajibaat yi aju ci armal te waajibaat yi nee na la mooy ay warugar yoo xam ne loo ci bàyyi rek am hadd yu daf lay war bu ko defee baatub hadd yi itam da nga dégg ma tudd ko lu bari waaye saa bu ma ko waxee rek mooy lu mel ne rey giléem wala nag wala xar wala bëy foo sa doole toll rek yaa xam foo sa doole toll waaye nag foofu ndawal gu bari gi lañ ci soxla ndax dañ koy jox néew ñu doole yi di leen ko dimbalee kon la ndawal gën a bari rek gën a itteel waaye nag yaa xam lan la ci sa doole man kon loolu mooy waajibaat yi nga xam ne moo aju ci armal yi mu àndal nga xam ne boo ci bàyyi rek am xëdd yu daf lay war su ma koy baamu dama lay wax ne bi ci njëkk mooy nga armal li ñuy wax ifraat yéen aj kase ba noppi soo dee ombre nga ombre soo ombrewul nga ñibbi bi ci topp mooy nga fexe itam ba armale ci béréb bañ la wax ne la nanga fa armale nga xam ne boo armalee ci beneen béréb bu dul béréb ba ñu la wax am xëdd yu daf lay war lu dul na ngay koo xam ne dangaa bàyyi sa béréb jaare madinatul munawara loolu waxoon nañ ne kon na nga armale foo madinatul munawara di armale bi ci topp mooy wax gi labbayka ci bi nga xamee ne armal nga ah bi nga xamee ne armal rek na nga daal di tàmbali wax labbayka allahumma labbayka ba mu egg di ko baamu di ko baamu soppuñ na nga di ko wax ca kaw a kaw a kaw wala nga di ko yàlla ba mu suufee suufee dañu bëgg rek mu yem tey dañu bëgg boo sonnee noppalu ndax boo ko dee wax te noppalu bu yàggee da ngay dem a dem ba li ngay wax dootu ko teewlu salaam ñu koy tudd rek te dañu bëgg li ngay wax it nga di ko teewlu dañu bëgg li ngay wax nga di ko teewlu kon loolu na lu ci mat a xam la. kon moom foo toll rek da ngay wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika lak labbayka ndax inna al amda wa ni'mata lak wal mulku laa sharika lak loolu da nga koy baamu lu bari saa boo sonnee noppalu du la yàqal def farata du la yàqal wax farata du jar nga li ko ci kaw waaye bëgguñu itam yàlla gi ba kenn du ko dégg na nga koy wax ni daal su ko defee nag moom ngay saxoo jamono bu nekk bu nekkul ci wax farata ak def farata rek ci ngay nekk di ko répété ci sa làmmiñ ba ba ñuy egg ca bisub juróom-ñeenteel ba mu yowma arafa bu nee ba tisbaar jot ba nga dem ci jullikaay ba foofu nga koy door a bàyyee ci fiqu Malik mu jeex li des ci sa aj dootoo ko wax labbayk allahuma labbayk yaa ngi wax sa borom naan ko wuyu si naa la ci ginnaaw ak wuyu ndax dana bi yàlla joxe ndigal sayidina ibrahima alayhi salaam mu tabax néeg bi ba mu ne ko wa asin fi naas bil ajjiyaatuk rijaalan jooju wooteel dañ ne képp ku nar dem màkka rek wuyu na ko keroog wuyu na ko ñi ñi di ko wuyoo ci seen biir yaay ñi di ko wuyu ci jamono boo xam ne ñu ngi ci ruux te àndaguñ ak jëmm képp koo xam daal yàlla dogal na mu war a dem màkka rek nee nañ bokk na wuyu woon na ko keroog waaye nag dañoo wax ne ba mu noppee itam nguur mag muy seytaane moom it daa taxaw foofu woote te nee nañ moom it ñu bari wuyu nañ ko waaw nee nañ moom itam ñu bari bari rek wuyu nañ ko te moom it nee nañ képp ku wuyu woon da nga aji maanaam ku wuyu woon Seydina Ibrahima alayhi salaam da nga aji ku wuyu woon seytaane da nga dem kon nag war ngaa seet ba xam yow kan nga wuy ji yow mi bëgg a dem yëral bu baax ba xam kañ nga wuy ji am na nooy melowoo ak looy dépassons ci yoon wi. dama danaa njort ne bu wut saytaane nga wuy ji kon waliyaasu billahi taala seetal ba lépp tege ciw yoon ngir nga doon koo xam ne sayidina ibrahima alayhi salaam nga wuy ji kon moo tax ngeen ko labbayka allahuma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka maa ngi seede ne duñ la bokkaale kenn ndax innal amda wa ni'mata lak cant daf laa ñeel ndax xéwal gi lépp rek yowa wal mulk ak nguur lépp yaay ki ko yelloo laa sharika lak labbayka allahuma labbayka labbayka laa sharika lak labbayka inna al amda wa niamata lak wal mulk laa sharika lak loolu da nga ko wax lu bari ci warugar yi la bokk soo armalee ba bis bi xaaj te waxu ko xadd yu mii ñu wax dana la war jëlil na rek boo armalee ba bis ba jeex tàkk te waxu ko rawatina na nga far ko ñàkk a wax kon faaw xadd yu moom daf lay war li ci topp mooy tawaaful xuddoom boo dikkee taxatul faaw nga def ko moom itam boo ko ñàkkee def moom itam alamaan daf lay war muy haddi moomu li ko tàmbalee ci giléem wala nag wala xar wala bëy soo ko tëlee nga woor ñetti fan ca foofa boo ñibbee woor juróom-ñaari fan muy fukki fan loolu mooy warugar yi aju ci jëmmi armal armal nag moom nee naa la moom mooy yéene rek su ko defee am na lu ci topp lu ñuy wax ay sunna sunna yi mooy sangu cangaay loolu ngay def laataa ngay armal yaa ngi sangoo ni ñi sangoo janaba rek noonu nga koy sangoo cangaay loolu nga xam ne day sës ci armal bi nga xam ne ngay sangu ba noppi rek génn solo daal di armal cangaay loolu ci ay sunnaam la bokk ci sunna yi aju ci armal la bokk moom nag ñàkk koo def du tax sa armal yàqu du yàq dara ci armal ba te itam du tax nga war a def hadiyu moomu ñu wax la ci topp mooy col gi bokk na ci ay sunnaam noonu ngay soloo nga xam ne da ngay wut dara rek def ko fa tubéy daan nekk jël dara teg ko ci sa kaw gàlloo ko génnee sa mbaggum day joor noonu loolu tam ci sunna yi aju ci armal ci la bokk ci sunna yi aju ci armal ci la bokk muy sa cangaay li ak bi nga génnee tam noonu nga soloo moo tax ma naan la ñu ñàkk xam léeg-léeg melokaan woo rek dañ koy tudde armal te fekk armal moom mooy yéene rek loolu colog armal rek la la ca toppaat mooy julli gi ñaar raakaa yi ngay julli ngir sësale ci sa armal ndax armal ji muy yéene pour tàmbali aj gi dañoo bëgg mu sës ci ginnaaw ak julli nga xam ne su fekkoon mu tombeek julli farata jot mën ngaa sëlmal farata ji rek daal di yéene sa aj muy armal su fekkee fekkul julli jot nag te muy waxtu woo xam ne kenn terewul naa fi la suba da ngay julli ñaar rakaa ngir boo sëlmalee mën a daal di yéene sa armal julli googu moom itam sunna la bu aju ci armal su fekkoon ne fekkul waxtu jot te fekkul muy waxtu woo xam ne dagan naa naafile di waxtu woo xam ne kenn sëñ cee naafile kon su la neexee daal di armal rek. tarutee sa armal baax nga xam ne sax julli gi du ci am waaye kon julli googu xamal ne mi ngi bokk ci sunna yi aju ci armal la ci topp mooy hàdd yi mi nga yor nga màndargaal ko bu dee giléema dañuy bëgg nga xotti ci jigéen bi wala nag dagg ko ci kaw ba muy nàcc bu dee xar nga liggéeyal ko lu mel ne caq arang ko ko mu nekk màndarga moo xam ne koo gis dana xam ne lii am hàdd yi lu borom pare ngir rey ko la ci aj gi loolu bokkoon na ci sunna yi kon sunna yi nga xam ne moom moo aju ci armal moom itam ñeent lañ ci lim ni nga xam ne warugar yi ñeent lañ ci lim ndax warugar yi ñi ngi ci lim ifraat ak armale samiqa ak wax gi labbayk ak tawaaful xudóom sunna itam lim nañ ci cangaay li noonu ngay sangoo muy ni ngay sangoo janaba ak noonu ngay soloo col gi su fekkee góoru nag dañ koy tere mu sol dara lu ñaw ba mu wari ëpp cër koy tere mu sol dara lu ñëw ba mu wër ab cër egg nañ ci beneen montre sax dañ ko koy tere am na mazhab yoo xam ne nag maye nañ montre ak jaaroog yëpp waaye mazhab mali egg na ci montre sax dañ koy xaw a tere lépp lu peeg sab cër ci lu ñaw rek dañ koy tere waaw su ko defee kon loolu nga bàyyi ko xel kon loolu nga bàyyi ko xel ak julli gi ak noonu ngay màndargaale sa hadiyu mi nga xam ne danga ko war a rey loolu ay sunna la yu ci aju hadiyu mi nag jamono toll na foo xam ne daanaka léegi ñu ci bari yoratuñ ko sax ndax xam nga loolu dafa béréb ba moo meloon noonu ci ay jamono nekkoon mel ni penc moo xam ne rek ñu bari bu ne aj kenn ku ne gis mu nga mu nga jiitalum xaram léegi nag kenn ku ne xam ne ne màkk ak ni mbindoo ak mbooloo mu bare bi xam nga ne kenn mëntu faa yorum xaraki bi jënam di dox waaye nag am na ay nit ñu ñu teg ngir loolu ñoo ne boo demee dañ lay wan prix xar yu xar mu ne ak la muy jar xarum fukki junni xarum ñaar fukki junni xarum fukki junni ak juróom ndax xar yu mag la ñuy am di ko jaay daal di joxe prix yi ak fi sa doole toll boo dikkee ne xarum nangam laa soxla wala sax njëgu gileem laa soxla wala njëgu nag nga di fay sa xaalis ñu jaay la jox la ticket wan la ne jënd nga te ñoom borey ko jotee dañ la ko rayal. am na ñoo xam ne nag dem nañ ba wóolutu ñooñ su fekkee nag daa am ndax daa am ñuy wax naan léegi am na ñu fa ne ñoo xam ne sax daa nekk bu leen ko joxee ñoo koy lekk loolu nag dama ne moom bu fekkee daf laa leer naññ naññ ne daf koy lekk man sañ nga ko ko bañ a jox te dem woor fukki fan yi bu fekkee tegul ci exemple boo xam ne bu wóor la rek sañ ngaa kon woori fukki fan yi waaye nag su fekkee yow looy sikk saaka rek la leeru la yow defal rek lu tee yow sa jaan wàcc la la war def nga ko moom nag moom boroomam la ndax dana ko jàllale ci way néew ñu doole ñu ko soxla wala déet waaye kon daanaka am xadd yi moom ñu bari yorutuñ ko fa di ko jiital ndax béréb ba moom moo ko mayetut kon loolu mooy sunn yi aju ci armal muy cangaay li ak col gi col gi nag nee naa la bu dee góor nag ci bàyyi xel dañuy araamal ci yow nga sol dara luñ ñëw ba mën a wérub cër jigéen nag moom sañ na ko ba ci ay bot sax dañ la ko tere bu nee ba toll ci jàngale tawaaf danañ ko gën a danañ ci gën a dikk ay bot dañ koy tere góor jigéen nag mën na ko sol waaye bu dee góor a te moom dong laa mënu koo ñàkk sol day ajoo mu dagg ko ba mu doone carax waaye daal lépp lu mën a wër ab cër rek dañ koy tere góor soo xasee armal dañ ko koy tere kon col gi nañ ci suuraale yu góor gi mu bañ a nekk lu ñaw noonu moo ko waxee rek day am looy def fa tubee daan nekk woddoo ko am loo gàll ci sa kaw ak julli googu nga xam ne moom ngay sësale ci armal gi nga xam ne da ngay julli ba sëlma rek daal di armal moo xam jullik farata la wala fekkul jullik farata teew nga julli ñaar rakaa ngir armale ko ak tam loolu moo xadd yi mi màndargaal moom nga ko war a màndargaal ngir koo ko gis xàmme ko ci jamono yam daan am sunna boobu daanaka xam naa ne amatu solo léegi su ko defee nag mu des yin sopp ci moom yin sopp ci armal mooy booy julli julli googu jàng gi nga ci jàng xul yaa ayyuhal kaafiruun ci rakaa bu njëkk bi ginnaaw faatiha rakaa ñaareel bi nga jàng ci lixlaas ginnaaw faatiha loolu luñ sopp la loolu luñ sopp la su ko defee loolu ñu bàyyi ko xel moom itam bàyyi xel loolu xam ne moom itam luñ sopp la kon armal mi ngi noonu ànd naa ki waajibaat ànd naa ki sunna ak luñ sopp su ko defee moom itam noonu la tëddee bu ko defee kon ñu jàll ci ponkum ñaareel bi muy tawaaful ifaada bi nga xam ne ñi ngi koy def ci bisu tabaski bi kon ñu ñëw ci tawaaful ifaada moom itam ponk la ci ponki aj nekk loo xam ne yaa ngi koy def ci bisu tabaski bi farata la daal su la soo ko deful sa aj moom itam du mën a baax maanaam doo mën a yeewi ko ci aj yeewi ko gu mag gi wane ne sa aj jeex na li fekk defoo ko moom itam li amoon ci armal daf cee am muy yéene li amoon ci armal bee jàll armal mooy yéene noppi nañ ci la amoon ci moom daa am ci moom mii mooy dafa am ay waajibaat yum àndal ak ay sunna yum àndal ak ay mëndoobaat yum àndal su ko dee moom itam dañuy indi yooyu yëpp door a jàll waajibaat yi nga xam ne moo ànd ak tawaaful ifaada nag day yoo xam ne soo ko bàyyee wër gi du mën a baax day laaj nga wëraat ko ànd ak nag ay sunna yoo xam ne yuñ ci bëgg la waaye du tee wër gi baax ak yuñ ci sopp yoo xam ne du tee wër gi baax day yuñ ci sopp rek su ko def waajibaat yi nga xam ne moo aju ci tawaaful ifaada ba ci njëkk ñu xamle ko mooy tahaara li ñuy wax tahaaratul xabas wa tahaaratul xadas mooy laab boo demoon di julli lañ soxla ci yow ci ak laab loolu lañ soxla ci booy wër kaaba li mu wuteeg julli rek mooy julli moom da ngay jublu xibla te wër kaaba da ngay wër waaye yeneen yi ci des yépp niñ ko aajoo ci yow ci julli noonu lañ ko aajoo ci yow ci wër kaaba soo wër kaaba gi daanaka yaa ngi julli yaa ngi ci digg dëgg ak jaamu kon dañ caa soxla ba fekkee sangu faratam moo la war nga def ko su fekkee jàpp la war nga def ko su soobee taqee ci sa jëmm baa ci sa yére te nga mën koo dindi nga dindi ko loolu warugar la wax ne soo ko ñàkkee def wër gi du mën a wér bi ci topp mooy suturaal sa awra li nga war a sàng ci sa jëmm nga sàng ko moom itam warugar la wa aju ci wër kaaba ndax mooy tax wër gi tege ci aw yoon soo ko ñàkkee def wër gi du mën a baax faaw nga sàng sa awra te wëraat ko bu ñetteel bi mooy wër gi nga koy wër tam nga toftale tuur yi ashwaat yooyu nga toftale leen maanaam nga xam ne da nga koy wër juróom-ñaari yoon yu tegaloo waaye doo dikk wër ko ñaari yoon ak ñett rek dem noppalu ba mu neex la naan ma dem eggale déedéet moom kay dañ lay may foo xam ne da ngaa taxaw di naan rek wala nopp noppalu tuuti rek wéyaat waaye toog diir bu yàgg dooru jógat di eggale moom boo ko defee rek la nga njëkkoon wër day yàqu day aajo nga wëraat ko warugar la nga toftale juróom-ñaari yoon yépp ba mu egg. bokk na ci ay waru garam tam juróom-ñaari yoon yi mat boo ko defoon juróom benn yoon dong yem ci wër gi du baax loolu waru gar la yoo xam ne day téye wër gi baax day tax wër gi du mën a baax soo ko bàyyee day tax wër gi du mën a baax day aajo nga wëraat ko waaw kon nga bàyyi ko xel na nga wër kaaba gi juróom-ñaari yoon du manqué dara te juróom-ñaari yoon itam na sësaloo loolu mooy ñeenteel bi na nga ko wër juróom-ñaari yoon yu mat waru gar la bu juróomeel bi mooy booy wër kaaba gi it na la féete wetu càmmoñ sa loxob càmmoñ na féete ak néeg bi sooy wër loolu warugar la sooy wër kaaba gi na la sa loxob càmmoñ féete ak néeg bi juróom-benneel mooy nga sori kaaba gi ndax li ngay wër da nga koy dànd dañu bañ ngay wër kaaba gi ba noppi jàpp ci buum yi nga jël sa loxo gàll ko ci kaw miir bi di wër loolu soo ko defee wëroo ko li ngay wër da nga koy dànd ba sa dara tiimu ko ngay dox di ko wër ba ci saa sarwaan boobu ma àndal sax bi nekk ci wetu kaaba gi dañu bëgg nga wëraale ko ndax dañ ne ci dëgg-dëgg ci kaaba gi la bokk bañ koy tabax dañoo amutoon alal ju leew ju ko matale rek kon nga wër ba wëraale saa sarwaan boobu ci warugar yi la bokk mooy tax wër gi baax dégg nga li ci topp mooy nga wëre ko itam ci biir jàkka ji maanaam miir bi nga xam ne moo ëmb kaaba gi miir bu mag boobu mooy jàkka ji xam nga jàkka yi ne fii moom day jëm xibla daa am nu muy bindoo jëm xibla ndax jàkka yëpp dañuy fii si jëm màkk dégg nga di dàkk kaaba gi foofa nag mooy fañ yëpp yi dàkk moo tax boo ko gisee moom dafa xaw a mel ne lu ron donte ronul complètement sax loolu la xaw a nuru nga ne foo nekk ci biir da ngay taxaw jàkkaarloo kaaba gi dañuy bëgg nag soo koy wër nga nekk ci biir miir boobu mën ngaa nekk rek ci kaw étage bi. ndax dañ koo yëkkati ca kaw ba ca kaw terrasse ba sax mën nga caa nekk di wër maye nañ ko waaye nag doo mën a nekk ci bit nag ci tëli ba naan da ngay wër kaaba gi déedéet day aajo nga ne ci biir jàkka ji di wër loolu waru gar la kon soo ko wëree ci bitti jaar ci tëli ya du mën a baax bu juróom-ñetteel bi mooy boo wëree ba eggal nga julli ñaar ràkk ci maqaama Ibrahim léegi nag day xat ba nga xam ne daanaka taxaw fa di julli yombatut ndax nit ñi day foofu fépp day bolake waaye kon foo mën a taxaw ci biir jàkk ji ba julli fi ñaar rakkaan rek mu baax maqaam Ibrahim nag mi ngi ci wetu Kaaba gi digganteem ak Kaaba gi yaakaar naa ci ay 15 mètres lay toll maanaam fukki mètres ak juróom daal du ko ëpp nga xam ne dañ cee def benn weer nii boo xam ne booy xoolee ci biir da ngay gis ay tànk mais na tey ñu tooyaloon fii ak ciment nga joggi ci daal di koy bàyyi ba mu wow lu mel noonu dañ ci màndargaal ne foofu mooy fi yonent Yàlla Ibrahima tabax taxawoon di di tabax Kaaba gi jamono yi mu koy liggéey foofu la taxawoon loolu nag boo ko xoolee naan nu mën a taxawee fee di liggéey fii fekk boobu fondement kaaba gi daanaka eggoon na foofu kaaba gi dafa réyoon lañ fondement woon bu njëkk bokkut ak li ñu njëkkati fi ne loolu la ñu njëkkati li muy rëy rëy ëppoon na ko li ñu fondement woon ëppoon na ko fuuf waaw daanaka eggoon na foofu ci maqaam Ibrahim bi moo tax foofu fi lañ bëgg nga julli fi ñaar rakan boo noppee ci wër gi ñaar rakan yooyu ne yaa ngi koy def ci ñetti wër yu ràññiku yi rek muy tawaaful xudum ak tawaaful ifaada ak tawaaful wadaa waaye yeneen wëri naafile ci des yëpp bu la neexee doo ci boole ñaar rakan yooyu ngay julli ci maqaam Ibrahim da ngay wër rek waaye ñetti wër yu ràññiku yi ne moom bu ci nekk day ànd ak julli ñaar rakan ci maqaam Ibrahima kon booy def tawaaful ifaada bii ba noppi julli ko ngay julli ñaar rakk ci maqaama Ibrahima na nga xam ne ci warugar yi la bokk bu xatee ba mënoo faa taxaw julli foo taxaw ci biir jàkka ji julli ko mu baax bi ko juróom-ñeenteel mooy booy wër Kaaba gi nga dox ak sa tànk kenn bañ laa yanu loolu nag lu ñor ngiru Maalik la ñor na ko lool maanaam bañ nañ lool nga mën a dox dara jutul ba noppi di fay ñu lay teg ci puus di wër ak yow wala ñu lay yanu yanu moom bu njëkk lañ ko daan def. léegi dañ ko gën a dëppaleeg jamono ay puus-puus lañ lay teg yoo xam dañ la ci dañ ci lañ la ci teg wër ak yow rek nga fay leen loolu nag dara jotu la amoo ci ngànt di ko def lu ñu bañ la moo tax nga dox ak sa tànk warugar la soo ko deful rek da nga am alamaan faaw nga reyum gàtt wala nag wala xar wala bëy waaw su fekkee da nga ci am ngànt nag moom mën nañ mën ngaa fay nit ñu puus la wala ñu yar la wër ak yow waaye boo ci amul benn ngànt dañoo bëgg ngay dox sa tànk kenn bañ laa yanu su ko defee loolu juróom-ñeent la yoo xam ne ay warugar la yu aju ci wër kaaba ci tawaaful ifaada bii suñ la koy baamu lañ lay wax mooy laab ci xabas ak xadas sang bu waree jàpp bu waree bu fekkee dangaa yore sobe ci sa yére bàyyi sa jëm nga raxas ko su fekkee itam tiim mooy sa farata su boobaa nga tiim la ci topp mooy suturaal sa awra mooy sol lu jot la ci topp mooy wër yi nga def ko ba muy juróom-ñaari yoon la ci topp mooy juróom-ñaari yoon yëpp itam nga toftale ko bañ koo xaajale la ci topp mooy jamono bi ngay war néeg bi itam néeg bi féete la ak sa loxo càmmoñ nga ne sa loxo càmmoñ mooy féete ak néeg bi la ci topp mooy jëmmi néeg bi itam na nga ko xaw a daan tuuti boo koy wër bul ci wéeru di ko wër bi ci topp mooy na nga ko wër itam ci biir jàkka ji na nga nekk ci biir jàkka ji jamono bi nga koy wër bi ci topp mooy boo noppee nga julli ñaari rakaa ci maqaama Ibrahim bi ci topp mooy jamono bi ngay wër néeg bi itam ngay dox ak sa tànk kenn bañ laa yanu su fekkee tëlewoo nga xam ne amoo ci benn ngànt kon loolu mooy waajibaat yi aju ci tawaaful ifaada am na tam lu ci aju ñu di ko wax ay sunna yoo xam ne sunna la yu aju ci tawaaf tawaaful ifaada boobu bi ci njëkk mooy ñetti yoonu njëkk yi nga ñukk ko waaye loolu nag ci tawaaful xuddoom rek lay doon ñett yoonu njëkk yi nga ñukk ko xaw koo mel luy daw noonu loolu sunna la ci tawaaf waaye nag ci tawaaful xudóom rek lay am ci tawaaful ifaada bi ak tawaaful wadaa du ci am te itam ñukk googu buñ ko waxee itam góor rek moom moo tax ñuy wax waaye jigéen taxul ñuy wax maanaam tawaaful xudóom daal am na ñaar yu ci am yoo xam ne góor rek lañ ko sant waaye sant ñu ko jigéen mooy ñukk gi ngay ñukk ñett yoonu njëkk yi ak génne gi ngay génne sa mbaggum day jor bañ koo sàng noonu loolu santuñ ko jigéen ñukk gi itam ci tawaaful xudóom sant ko jigéen ba ci ñukk ñi def ci dox Safaa ak Marwa sax ci batun masid boobu santuñ ko jigéen góor rek lañu wax bokk na ci sunnay wër Kaaba lu mel ne tawaaful ifaada bi ba ci tawaaful xudóom mooy ñaan dañu bëgg jamono bi ngay wër Kaaba gi nga baril ak ñaan waaw surtout ngay wax rabbana taqabbal minna rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil axira hasanat jooju nga di ko wax lu bari ak sa li nga bëgg te bëgg koo ñaan yàlla lépp nga ñaan ko ko julli ci yonent bi alayhi salaatu wasalaam nag mën nañ ko ci ndax moom ñaanal yonent bi la kon jamono bi ngay wër kaaba gi dañ cee taamu lool ak ñaan moo xam tawaaful xudóom la moo xam tawaaful ifaada la moo xam tawaaful wadaaxa la moo xam sax wërum naafile la waaye dañoo bëgg lu bari ngay ñaan yàlla rek bokk na ci sunnay wër kaaba mooy lam lamsu laal gi ngay laal ci rukunul yamaan yi rukunu limaan dañuy bëgg boo ci egsee nga teg ci sa loxo am na màndarga am na benn ndikkal buñ ci teg da ngay teg sa loxo daal di jël sa loxo bi teg ko ci sa gémmiñ te bañ koo muuc moom loo ko jege jege du tax nga muuc ko da ngay teg sa loxo ci kawam rek teg ci sa gémmiñ laal goo ngay laal muy laal gi ngay laal rukunu limaan yi muy koñ bi bi nga xam ne moo xaw a dend ak fi xajarul aswad ne xajarul aswad am na koñ bu bu ko gën a jege waaye am na beneen bu ko féete na le foofu lañu fa la rukunul limaan yi nekk moom boo ci egsee laal gi nga koy laal ak sa loxo jël sa loxo teg ci sa gémmiñ loolu ci sunna yi aju ci wër kaaba la bokk ci tawaaful ifaada am na itam ci tawaaful xudum bi ci toppaat ci ay sunna muy bi ko ñeenteel mooy fóon gi ngay fóon doj woowu muy xajarul aswad doju ñuul woowu sunna bi nag mooy sa yoon wu njëkk ba di koy def tawaaful ifaada wala ngay def tawaaful xudum boo ne yulub ci kaaba gi rek bala ngaa commencé say wër dañoo bëgg nga njëkk fóon doj wi am na ñoo xam ne nag dañ dañuy dañoo defee lu ñuy yër la te duñu du lu ñuy yër lu ñuy fóon la ndax niñ ji sa génoon kii xool im day defee da nga yër dara déedéet dafa da koy fóon nii ba tey am na ñuy laaj nan dañ naan doyu ñuul la te li ñuy gis dafa mel ne dafa weex su ko defee kon ñu xamal ne ne dañoo wax ne doju wa dafa am ñu ko daan àkkati nànk-nànk di ko xaw di tojaare ngir jibli ca barkeelu ñu gis ne buñ ko bàyyi noonu bu yàggee mu jeex ñu daal koy mujj far xob xob ko xaalis tey ko ci nii ba nga xam ne di su ko mën a kiyati moo tax nga gis mu xaw a mel ne lu weex noonu su ko defee moom lu ñuy fóon la moom yoon wu njëkk wi tam moom mooy sunna bala ngaa tàmbali sa wër nga njëkk ko fóon loolu mooy sunna nga xam ne foofu tam fi ngay tàmbali sa wër soo dikkee ba egsiwaat ci rek am nga benn soo ci egsiwaatee am nga ñaar waaye nag sopp nañ saa boo ci egsee tam nga fóonaat ko loolu lépp nag mi ngi dépendre ci bu xatul ba nga mën koo laal saa bu xatul féex ba nga mën koo fóon yoonu njëkk wi sunna la nga fóon ko yoon ci des yépp nag sopp nañ saa boo ci egsee tam nga fóon ko su xatee nag ba mënoo koo fóon nga laal ko jël sa loxo teg ci teg sa loxo ci sa gémmiñ su xatee ba sa loxo sax mënu cee tegee nga nga junj ko nii rek te wax allahu akbar jàll ndax yoon yi ngay dikk di ko fóontam ba ci nekk day ànd ak allahu akbar soo dee ba mënu ko olaal it boo dikkee ba tollam nga junj sa loxo rek ne allahu akbar daal di wéy kon loolu moom tam ci sunna yi tawaaful ifaada ci la bokk muy fóon gi ngay fóon xajarul aswad su ko defee loolu kon nga bàyyi ko xel kon moom ay sunna mi ngi noonu liñ sopp nag limal nañ la ci maanaam yoon yoon yooyu ngi waral Kaaba tey ne la saaboo ci si nga fanaat ko lu ñu sopp la kon ñu jàll ci li nga xam ne moom mooy ponk ñetteel bi muy dox safa ak marwa dox diggante safa ak marwa loolu ci ponk yi ci la bokk te ponk waxoon naa ne mooy farata mooy loo xam ne boo ko bàyyee ba waxtum jàll dootu ko mën a defar te sa aj dafay yàqu diwén rek nga fay siwaat ko moom tam li dal ñii da koo dal mooy dafa am ay waajibaat yu mu àndal ak ay sunna yu mu àndal ak yu ñu sopp yu mu àndal moom itam yooyu dañ koy lim door a mën a jàll dox safa ak marwa nag boo koy def da ngay tàmbalee ci safa ndax alquran ci la tàmbalee bi mu koy njëkk a tudd moom suñu borom daf ne inna safa wal marwata min sha'airillah comme que safa la njëkk a tudd nag moo tax booy tàmbale ci ngay tàmbalee dégg nga da ngay njëkk dem ba ca safa door faa jóge nag dem ba ca marwa tàmbale di baagante ba bay mat juróom-ñaari yoon su ko defee kon doxa dox safa ak marwa dafa am ay warugar yu mu àndal bi ci njëkk mooy na sës ci ak wër kaaba da ngay bàyyi ko ci wër kaaba gi rek daal ciy sësali dox safa ak marwa tey bi nga dikkee màkk ba def tawaaful xud def tawaaful xuddum ba noppi dañoo bëgg nga daal di ciy sësale dox safa ak marwa waaye su fekkee da ngaa dikki def tawaaful xuddum dem toog ba mu neex la nga ne damay dem wëri safa ak marwa soo demee wër ko du baax wër gi du baax warugar la mu topp ci ginnaaw wër kaaba suba day aaja nga wëriwaat kaaba gi juróom-ñaari yoon na nga ko defoon ci tawaaful xudum julliwaat ñaar ràkk ci maqaama Ibrahima door mën a dem wëri ko mu door a baax nga xam ne wër googu da nga koy da nga ci yéene ak war ba noppi daal di koy wéral defe ko nañ ko diglee su fekkee bi nga digg def tawaaful xudum moom da nga ko caa sësaloon moo gën a noppale da nga def tawaaful xudum ba noppi rek fóonaat doju dem doxi safa ak moroom mu jeex benn yoon waaye nag ginnaaw da ngaa toog ba mu neex la nga door ko bëgg a defiwaat da ngay dikk waraat na nga wari woon ci tawaaful xudum yéene ci ak war ni war gii kat fas naa koo yéene sësaleeg dox safa ak marwa ba noppi tam wéral ko mooy defee ko nañ ko war a def ba ya ko war a yàq benn bañ caa am ndax su fekkee wër nga kaaba ba noppi dem dox safa ak marwa ñu wëlbatiku gis ne ni nga wëree kaaba gi baaxul am na lu ko yàq kon dox ga safa ak marwa moom itam yàqu na kon day aajo nga wéral ko. te yéene ci ak war kon faaw ci wër Kaaba rek ngay mën a bàyyi ko dox Safa ak Marwa faaw dañuy sësaloo dégg nga kon loolu warugar la ci buñ sësaloowul du mën a baax kon yii ma lay wax moom tam warugar la yoo xam ne day tax wër gi dox gi Safa ak Marwa du mën a baax kon nga bàyyi ko ci xel faaw mu topp ak wër Kaaba ba ci topp mooy itam tàmbale gi nga war a tàmbalee ci safa dem ba ca marwa loolu ci warugar yi la bokk boo dikkee ñaari doj lan safa aw doj la marwa aw doj la waaye da ngay dem ca safa tàmbalee ca da ngay dem ca safa nga yéeg ba ca kaw jaakaarloo Kaaba gi boo jógee ci safa nag dem ba marwa da ngay wàññi ne benn boo jógewaatee marwa delsi ba ci safa ne ñaar nga xam ne da ngay def aller ak retour ñaari yëpp nag bu ci ne aw yoon da nga koy wàññi dem bi aw yoon la dikk bi aw yoon la nga xam ne boo demee dikk rek ñaar ngay am ba ba muy mat juróom-ñaari yoon su juróom-ñaari yoon yi matee da nga gis ne fenn fu ne taxaw nga fa ñeenti yoon ci safa taxaw nga fa ñeenti yoon da nga gis ne ci marwa itam taxaw nga fa ñeenti yoon kon dox safa ak marwa itam bokk na ci ay waru garam nga njëkki ci safa tàmbalee ci safa bokk na ci ay waru garam tam dox gi safa ak marwa nga sësale ko ni mu doone woon waru gar ci bi ngay wër Kaaba gi ñu ne da ngay sësale juróom-ñaari yoon yi dox safa ak marwa tam juróom-ñaari yoon yëpp da nga koy sësale su fekkee da ngaa baagante ñaari yoon ak ñett rek toog noppul ba mu neex la nga door a def la nga njëkk a dox day yàqu yaa ji nga sësale wala bu fekkee ak xaajale daf ci am diggante bu néewale lu mel ne nga mara naan naan rek wala nopp lu tuuti rek daal di wéy waaye du mën a ñàkk nga sësale leen boo leen sësalewul du baax juróom-ñaari yoon yëpp da nga leen di sësale kon loolu ay warugar la yoo xam ne mi ngi aju ci dox safa ak marwa bi ci njëkk mooy na topp ci ak wër Kaaba na ko wër Kaaba gi jiitu bi ci topp itam mooy na nga tàmbalee ca safa dem ba ca marwa yàlla nag def na ci tawfeex joo xam ne fi mu ne mën ngaa jóge safa ba marwa daanaka te jant bi sax mën na laa bañ a tiim diggante safa ak marwa mi ngi toll ci ñeenti téeméeri mètre ak juróom ñeenti téeméeri mètre ak juróom ci la toll dañ ko def lu mel ne sanro weer ndaawu yaatu rek comme yokk jumaa ji noonu mu mel te gudd ñu bàyyi ci ñaari yoon aller ak retour ñi nga xam ne ñooy dem ak ñuy dikk ñi nga xam ne ay puus puus lañ yor di leen ci puus tam ñu bàyyi leen ñoom itam ñaari yoon ci digg bi ñoom itam yoonu dem ak yoonu dikk nga xam daal gën naa noppale su ko defee moom itam da nga ko baagante juróom-ñaari yoon soo noppee da nga gis ne fenn fu ne taxaw nga fa ñeenti yoon kon war gar yaa ngi noonu na topp ci wër Kaaba te it juróom-ñaari yoon yi na mat sëkk bu ma bu manqué juróom-ñaari yoon rek daal di yàqu moom baagante ko ngay baagante diggante Safa ak Marwa te itam juróom-ñaari yoon yëpp nañ sësaloo te itam na nga tàmbalee ci Safa. ba marwa door a delsi loolu ñeenti warugar la yu aju ci dox safa ak marwa moom itam boo ko ñàkkee def wër gi dox gi safa ak marwa day yàqu day aju nga defaat ko su ko defee am na itam ay sunna yu aju ci moom ay sunna yu aju ci dox safa ak marwa ba ci njëkk nag mooy fóon xajarul aswad te bokkut ak fóon gi nga fóonoon bi ngay wër Kaaba gi ci bi ngay tàmbali ndax bi nga egsee mel ne da ngay wër Kaaba gi bi nga bi nga egsee ngir wër Kaaba gi ci tawaaful ifaada wala tafa tawaaful xudduum dañ ne la nga njëkk a fóon xajarul aswad mu nekk sunna ñu ne sopp nañ saa boo ci egsi funaar ko ba juróom-ñaari yoon yi di mat soo demee ba juróom-ñaari yoon yi mat nag ba nga julli ci maqaama Ibrahima ñaari rakaa ba war a génn nag ngir doxi safa ak marwa jamono boobu lañ bëgg nga jàddaat ca doju fóon ko fóonuk tàggutoo fóonuk wan ko ne daal yaa ngi doxi safa ak marwa fóon googu ngay fóon doj wi ngir génn ngir doxi safa ak marwa sunna la te it sunna la bu aju ci dox safa ak marwa bokkul ci war kaaba sunna la bu aju ci dox safa ak marwa noonu ko cheikhul xadim indee ci tasawudu zixaar bi ci topp mooy boo dee góor a nga yéeg ba ci kaw safa loolu sunna la nga yéeg ba ca kaw daj wa jaakaarloo kaaba gi ñaan ñaan googu itam sunna la dañu bëgg sax nga ñaan fa ñaan gu yàgg ñaan ba sa xol sedd wàccaat dem ba marwa nga yéeg ba ca kaw yaakaar loo Kaaba gi ñaan ba sa xol sedd nga wàccati def ko ba muy juróom-ñaari yoon kon boo dee góor a yéeg gi nga yéeg ba ca kaw daj wa loolu sunna la su aju ci dox safa ak marwa bu dee jigéen nag moom bu ragalee xat-xatu góor yooyu mën na ko bañ a def sunna soosu ci góor lañ ko wax waaye waxuñ ko jigéen jigéen sañ na ko bañ a def bu ko neexee lu mu yéeg ci doj wi rek mu doy rawatina daje beeg góor ñeeg yooyu noonu bi ci toppaat ci sunna yi nga xam ne mi ngi aju ci dox safa ak marwa mooy gaaw gi ngay gaaw ci diggante batul masil boobu ñuy wax bi nga jógee safa jëm marwa am na diggante boo xam ne boo ci egsi dañuy bëgg nga ñëkku ba paase ko diggante la boo xam ne def nañ ci ay màndarga am na làmp werte boo xam ne boo ci egsee rek moo lay wan ne fii nga war a tàmbalee ñukk boo demee ba jeexal ko da nga gisaat beneen làmp bu mel noonu bu lay wan ne léegi jeexal nga diggante bi nga waroon a ñukk bu dul dara sax boo ko jubee nii rek am na benn tableau boo xam ne dalay tiim nii boo xoolee da nga ko gis danga la wan ne egsi nga ci fi nga war a tàmbalee ñukk soo demee ba jeexal koy da nga gisaat yeneen mandarga yu la wan ne jeexal nga diggante bi nga doon ñukk kon ñukk googu nga ñukk diggante boobu moom itam sunna la ba aju ci dox safa ak marwa su ko loolu tam ñu xam ko bu baax moom dox safa ak marwa tam am na yu ñu sopp ndax dañ cee sopp suturaal sa xawra jamono bi ngay dox safa ak marwa dañuy bëgg nga sol la jot nëbb sa xawra waaye loolu foofu mu eggu ci ci warugar bi ngay wër Kaaba nag warugar lañ ko defoon waaye dox safa ak marwa moom du ci warugar sunna la luñ ci sopp la rek. te sax li tax ñu sopp ko mooy bëccëg gi ak nit ñi yooyu waaye nee nañ bu fekkoon ne guddi nga koy dox te kenn néew fa boo soltoo ni yéeri sax du tee dox gi Safa ak Marwa mën a baax waaye nag bëccëg gi ak nit yi moo tax ñu sopp ci nga sol loo xam ne nëbb nga sa xawra bokk na ci liñ ci sopp itam taxaara boobu ñu doon wax mën ngaa ñàkk yorum jàpp ba noppi daal di dox Safa ak Marwa te du tee mu baax waaye nag sopp nañ booba nga yore njàpp yore ak laab sopp nañ sax si yéeri bu ci sobee nekkee suba nga raxas ko. kon suturaal sa awra ak yor ak laab moom ci dox safa ak marwa luñ ci sopp la waaye eggu ci ci sunna bay egg ci warugar waaye nag bi nga wër Kaaba moom warugar la woon ndax nee la wër Kaaba boo ko def mel na ni yaa ngi julli rek su ko defee kon loolu tam ñu bàyyi ko xel bu baax kon soo koy baamu da ngay wax ne dox safa ak marwa am na ay waajibaat ak i sunna ak i mënduubaat waajibaat yi mooy ne ko wër Kaaba jiitu te it booy dox na nga tàmbalee safa te it na mat juróom-ñaari yoon te juróom-ñaari yoon yi na nga leen sësale sunna yi mooy fóon gi ngay fóon xajarul aswad njëkk ngay tàmbali wër gi booy bàyyi ko ca kaaba gi fóon gi ngay fóon xajarul aswad ak tam boo dee góor yéeg nga war yéeg ba ci kaw safa ak kaw marwa loolu sunna la ak gaaw gi nga war a gaaw ci diggante boobu ñuy wax batul masil loolu nag bu ñu ko wax moom itam góor a tax ñuy wax waaye jigéen ñukk boobu du ko def wax naa du ñukk ci tawaaful xudum ba du ñukk ci dox safa ak marwa day dox rek fële moom sunna la fa ci góor fii tam sunna la fi ci góor waaye nekkul ci jigéen su ko defee yin sopp ci moom tam moom mooy sutaral xawraam ak sollu laab kon yooyu mooy yi nga xam ne moom moo aju ci dox safa ak marwa ñu war a dikk nag ci li nga xam ne moo aju ci taxawaayu arafa moom itam ci ponk yi la bokk kon ñu wax la ne taxaw arafa moom itam ci ponk aj ci la bokk te waxoon nañ ne ponk mooy farata mooy loo xam ne soo ko deful sa aj du mën a baax alayhi salaam nee na al ajju arafa aj moom ku taxawul arafa rek ñàkk nga sa aj sa aj baaxut taxawaayu arafa bi nga xam ne moom la ñuy wax nga xam ne mooy ponk bi nga xam ne ku ko deful sa aj baaxul mooy taxawaayu guddi ga bu ne tey la juróom-ñeenti fan ci tabaski nga xam ne buñ xëyee muy bisu tabaski bi guddi googu la ñuy def taxawaayu arafa la tàmbalee ca ba jant bi soo boo fajar di jot képp ko aj si woon màkk rek war diggante boobu war nga fay jaar arafa donte da ngay taxaw rek jàll wala da nga fay jaar jàll du mën a ñàkk soo ko deful rek sa aj du mën a baax waaw dem nañ ba ci indi sax mel ni misaal di la wan ne su fekkoon ne taxawaayu arafa dafa jot ci guddi gi te defagoo ko. ndax nee naa li tàmbalee jant bi so ba fajar mooy bu farata bi mooy bi nga xam ne ku ko deful sa aj baaxut diggante boobu mboolem ñi aj si ku fa jaarul arafa rek sa aj baaxut moo tax ñu ne bu fekkoon ne da ngaa julleegul gee ba fajar di bëgg a jot nga xam ne waxtu gee wi mi ngi bëgg a jeex te di xawagoo arafa nga gis ne boo demee di julli gee taxawaayu arafa dana la raw te boo demee di def taxawaayu arafa itam waxtu gee wi dana la raw foofu dañ naa la demal nga julli gee taxawaayu arafa raw la sa aj yàqu bu déwénee nga aj siwaat ngir wan la rek ne aj gi du tax benn farata war laa raw waxoon nañ ne la sa waajtaayu aj sax bala ci ay julli farat naray raw rek jékk goo ndax julli moom mooy li gën a màgg ci mboolem ponk lislaam yi kon genn julli farata rek bu la naray raw ci sa waajtaayu at rek sa waajtaayu aj màkk rek kon jékk goo wax dëgg yàlla gis ngeen fii moom ñi fi waaj ñu bari rek waxuma génn julli waaye julli yu bari daanaka moo leen raw ci seen waajtaay rek te génn julli rek bala ci naree raw rek daa jar nga war a bañ a aji yow ba kere nga koy man waaw kon taxawaayu arafa farata la taxawaay bi farata nag nekk ponk bu mënta ñàkk mooy la tàmbali ci guddi gi ba fajar waaye taxawaayu arafa bi nga xam ne ci bëccëg gi la boobu warugar la ndax taxawaayu arafa moom itam nee na dafa am moom itam ay warugar yum àndal ak ay sunna moom itam ak i mëndoo baat kon bu ne tey jii la arafa tey jii la yowma arafa muy bisub juróom-ñeenteel bi dañu bëgg ba tisbaar jotee na fekk ñëpp ci jullikaayu arafa ba taxawaayu bëccëg googu warugar la ku ko deful ba jant bi so da nga da nga def am haddi mooy da nga tuur deret ilimaan ba fa lay ñëw jiite fi nit ñi tisbaar ak takkusaan ñu boole ko nga xam ne tisbaar dañ koy julli ñaar rakaa rek wàññi ko noddalaat takkusaan julli ko xaat te jotagut moom itam ñu julli ko ñaar rakaa rek ilimaan bi dana def foofu ay ñaari xubba yu am solo waaraate lool ci fànn yu bari mu wax ci ñëpp yendoo arafa ci bis boobu di ñaan ak jéggalu seen borom subhaanahu wa taala buñ dee ba jant bi so nag taxawaay bi nga xam ne mooy farata door a tàmbali nga xam nit ñi ci la ñuy door a déparé arafa jëm musdalifa taxawaayu arafa nag du ci ni ki dafay dikk rek toog fa jëm fu kenn xamul ndax ñëpp bu ñu fa bëggoon a toog kon kenn du fa xaj kon genn wàll ñuy waa ñi àcc sax duñ fa mën a duñ fa mën a teew ndax dañ fa dul xaj da nga fay jaar jàll rek. ndax wax nañ la boo bu fekkoon nga war ci kaw dara sax la nga war bëgguñu nga wàcc ko su la fekkutoon nga war ci kaw dara nga xam ne dangaa dox ba egg fa it bëgguñu sax nga toog boo ci amul benn ngànt moom daal da nga fay jaar loo taxaw rek ba yëg ne taxaw nga rek wéyal su ko defee balaa fajar nag képp ko ajoon dana fa mën a jaar ndax kenn du fa dikk taxaw ku ñëw da ngay jàll ku ñëw da ngay jàll ñëpp dañuy jàll wuti musdalif nga xam ne musdalif fa la ñuy jullee ji timis ak gee wàññi ko timis ji nag moom kenn da ko wàññi ndax ñett raakan la waaye géeja la ñuy wàññi def ko ñaar raakan kon taxawaayu arafa moom itam dafa am ay waajibaat muy taxawaayu guddi ga taxawaayu bëccëg ga warugar la su la rawee da nga tuur deret bi nga jógee arafa ci guddi gi itam wàcc gi nga wàcc musdalifa munta ñàkk warugar la soo dikkee rek romb musdalifa jàll fanaani mi nan kon am xët yu dina la war faw nga wàcc musdalifa nuzulul musdalifa moom du mën a ñàkk warugar la soo ko bàyyee rek alamaan war la fa ngay wàcc julli fa timis ak gee te dañoo bëgg nga fanaan fa ba julli fa fajar loolu moom nag du warugar sopp nañ ko nag nga def ko waaye du warugar su la neexee yow boo fa wàccee ba julli timis ak gee rek la xasaat ci guddi gi dem minan fanaani fa te du tax sax am xaddi yu war la waaye nag ñàkk fa wàcc moom boo ko defee rek am xaddi yu war la waaye nag liñ gën a taam moom mooy boo fa wàccee ba julli fa timis ak gee nga toog fa ba jullee fa fajar boo fa jullee fajar ba noppi dem fa ñuy wax mashar haram nga taxaw fa ba jant bi bëgg a génn waaw dañ fay nekk moom itam di ñaane ka jégglu suñu borom ba jant bi bëgg a génn nga xam ne foofa tam fa ngeen di fore juróom-ñaari xeer yoo xam ne moom ngeen war a def ci jamratul aqaba ci bisu tabaski bi ndax yow bi nee subal tabaski ci nga ñëw musdalifa ci guddi gi fanaan fi ba fajar ba nga julli suba tax fa ba jant bi bëgg a génn nga door faa jóge nag dem minan ci suba gi teel muy bisu tabaski bi gis boobu nga egsee meneen ci bisu tabaski bi rek ci ngay defee li ñuy wax jamratul aqaba moom itam waru gar la waru gar la wax ne boo ko bàyyee faw alamaan war la faw nga def am hadiyu te juróom-ñaari doj yooyu nga fay sànni yaa ngi ko fore ca musdalifa laataa ngay ñëw soo ko fa foriwutoon ba egsi nag du tee mën nga ko fore meneen googu mooy jamratul kubra bisu tabaski bi moom benn jamra boobu rek lañuy sànni te fekk am na beneen jamra bu ñuy wax jamratu suxra ak jamratul wusta muy jamratul ula ak jamratu saani waaye nag tey jii nga xam ne tey la tabaski moom jamratul aqaba rek ngay sànni juróom-ñaari doj boo xëyee ñu ne tey la tabaski nga xam ne ci guddi gi ci nga jóge musdalifa musdalifa nga fanaan ba julli fajar suba teel nga ñëw minan ci bisu tabaski bi bu fekkee da ngay ko xam ne fanaanowoon musdalifa nag da ngaa topp guddi gi ñëw kon yow minan nga yeewoo fa nga xëyee waaye nag boo xëyee ñu ne tey la tabaski li la njëkk war mooy jamratul aqaba moom ngay sànni béréb la boo xam ne ngay dem sànni fa juróom-ñaari doj te doj wu ci nekk boo koy sànni nga boole ko wax allahu akbar soo noppee la ca topp mooy rey sama haddi yi bu fekkee amee woon nga ko fekkee yaa ngi woon ak sama haddi yi te dangaa defoon aj gu tax am haddi yi war la ba nga war koo rey jamono boobu ci nga koy rey boo noppee daal di watu su fekkee góor nga mën ngaa wat sa bopp ba mu set wala nga wàññi bu dee jigéen nag moom wàññi rek lay man waaye du suñu wat kawaram ba mu def am nel ëpp naa def boo noppee nag da war a dem def li ñuy wax tawaaful ifaada muy wër gi ngay wër Kaaba nag ci bisu tabaski bi dañ ko doon jàngale ci ginnaaw doon la wax ne la farata la boo xam ne mënta ñàkk bi nga xëyee daal ba def jamratul xaqaba ba noppi xamal ne yeewiku nga léegi yeewiku gu ndaw yeewiku gu complètement sa aj jeexagut waaye yeewiku nga yeewiku gu ndaw goo xam ne yan la doon tere am na ci yoo xam ne fi mu ne nii boo ko defoon it sa aj du yàqu ndax dañ laa tere woon joteeg sa soxna ci bi nga armalee ak xeeñ parfum ak diw yu bare bare waaye nag ginnaaw nga xam ne xëy nga ba nettee li tabaski ba nga def jëmaratul xàq ba ba noppi donte defi ko tawaaful ifaada yeewiku nga yeewiku ndaw wax ne moo la tax a sañ a wat noonu ba tax nga wat sa karaw te dara fekku la ci te xam nga ne wat sa karaw bokkoon na ci yan araamaloon ci yow te gis nga noonu bi nga xëy def nga ko dara fekku la ci ndax da ngaa yeewiku yeewiku gu ndaw ngoo xam ne am na yu la terewoon yoo xam ne fi nii def ko tax du tax sa aj yàqu waaye nag am hadiyu yu dana la war kon su boobaa sa aj du yàqu waaye am hadiyu yu dana la war nga xam ne su fekkee bi nga xëyee def jamratul xàq ba rek daal di nga joteeg sa soxna kon du tax aj gi yàqu waaye nag jote googu nga joteeg sa soxna te defu ko tawaaful ifaada dana tax am hadiyu war la kon loolu ay warugar la yu aju moom itam ci dox ci taxawaayu Arafa muy taxawaayu bëccëg ak wàcc ga Musdalifa ak bi nga xëyee sànni jamra boobu nga def muy jamratul aqaba daal di rey sam xar daal di watu def tawaaful ifaada yooyu boo ko defee nag sa aj mi ngi tàmbali di cate ndax léegi li la dese mooy delluwaat mi nan am fa ñetti fan wala ñaari fan su fekkee da ngaa yàkkamti ñaari fan yoo xam ne bi set boo xëyee bu tisbaar jotee nga dem ci jamra yi sànni ñetti jamra yépp jamratul xaqaba jamratul ula jamratul saani ñaari yépp ñetti yépp ngay sànni muy ñaari fan yi nga xam ne ñooy topp ci tabaski su la ko su jot mayee dëgg na nga def fa ñetti fan yépp moo gën alxuraan nag tiwul moom moo ne rek fa man taajala fi yawmi ni fala isma alay ku yàkkamti ci ñaari fan yi ba def fa ñaari fan yi rek wàññi ko tam du tee baax na du ci am bàkkaar waaye boo mënee am ñetti fan ci minan tam du wàññi dara dégg nga su ko defee kon loolu moom mooy ponk yi doon lim ak ponk bu ci nekk lim àndal ci ay warugar ak lim àndal ci ay sunna ak lim àndal ci yu ñu sopp su ko defee li ñuy def nag mooy lim yi nga xam ne bi nga armalee dañ la ko dañ koy araamal ci yow yi nga xam ne bi nga xasee armal aj araamal nañ ko ci yow te soo ko defee am hadiyu war la am ci yoo xam ne sax boo ko defee sa aj day yàqu yooyu nee na moom léegi moom la ñuy bëgg lim ma yooyu nag maa ngi ko waroon a dugal ci ba ma waxee armal rek foofu laa ko waroon dugal ba ma jàngalee armal rek foofu laa waroon dugal nag léegi yi nga xam ne moom léegi araamal nañ ko ci yow bi nga xasee armal bu ko defee ñu wax ko kon fii ñu ngi fi wax yi nga xam ne boo xasee armal sañatoo koo def tere nañ la ko. kon léegi ñu wax yi nga xam ne mooy yi nga xam ne dañ koy araamal ci ki nga xam ne xas na armal aj am na ci loo xam ne moom boo ko defee aj gi sax day yàqu yi ci des nag moom boo ko defee aj gi du yàqu waaye am hadiyu daf lay war su ko dee ñu xam ne la ci njëkk mooy jote ak sa soxna su fekkee bi ngay aje da nga ànd nag sa soxna su ngeen jotee ci loo xam ne egguñ ci yow ma arafa ba egg si ci bisu tabaski bi muy fukki fan bi bu fekkoon ne dem nañ ba ne tey jële fukki fan tey la tabaski te defagoo jëmaratul xaqaba defagoo tawaaful ifaada sax boo fi joteeg sa soxna aj gi yàqu waaye nag su fekkee jot ngaa def jëmaratul xaqaba muy sànni nga jamra boobu ngay def ci bisu tabaski bi jote gi door a am moom hadiyu yi moo lay war waaye aj gi du yàqu waaye nag diirub nga armale ba ba ngay egg si ci bis bi ñu ne tey la tabaski ba nga xëy ba def jamratul xaq ba ak tawaaful ifaada ba noppi diggante boobu bépp soo fi joteeg sa soxna rek sa aj yàqu na te juróomi mbir daje na ci yow ndax da nga am bàkkaar ci jote googu nga jote ak moom te itam sa aj yàqu na mooy ñaareel bi te itam aj gi yàqu gi mu yàqu du tax ngaa dem toog fële bàyyi ko faaw da nga continuer eggale ko ba mu egg muy ñetteel bi bi ci topp mooy da nga ko fay si bu déwénee nga ñëw defaat ko te nag. aj gi ci yéen ñaari ñëpp la yàqu góor gi ak jigéen ji bi ko juróomeel mooy du tee da nga def am hadiyu kon boo fi joteeg sa soxna te yeewi koogoo da nga defum hadiyu ndax yàqu gi sa aj yàqu te danga ci am bàkkaar ginnaaw yaa ko tey te sa aj yàqu na te da nga continuer aj gi ba mu egg te bu diwee ne da nga aj siwaat kon joteeg sa soxna araamal nañ ko ci yow boo xasee armal su ko defee loolu nga bàyyi ko xel bi nga xasee armal aj tàmbali sa aj tere nañ la jote ak sa soxna ba ba ngay egg ci bisu tabaski ba ba def jamaratul xaqaba ba def tawaafal ifaada ba noppi boobaa nag léegi jote ak sa soxna duutu yàq sa aj bi ci topp muy ñaareel bi mooy boo dee góora bul muur sa xar kanam te itam bul muur sa bopp boo dee jigéen bul muur sa xar kanam te itam bul muur say tenq jigéen moom sañ naa muur boppam ndax lislaam moo ko sant mu muur bopp bi waaye nag xar kanam bi ak tenq yi lislaam loolu da ko may mu bañ koo muur kon bu demee màkk ci aj gi tam bu mu ko muur ba solo lu mel ne ay gants ngir di fajub sedd alamaan daf koy war day def am hadiyu kon kon góor daal sañta sol mbaxana wala muy kaalaw lenn loo xam ne daf koy fekkal aw naaj wala sedd rek araamal nañ ko ci moom góor gi ci boppam ak ci xar kanamam loo xam ne da nga ko bëgg a fajaw naaj day fekk mooy loo xam ne yaa ko fekki ron garab goo dem toog ci wala mbaar nga xam ne yaa ko fekki kerloo ko boo jógee bàyyi ko fa waaye parisol boo xam ne yaa ko yor mu tiim la foo jëm jëmee moom sax dañ la koy tere ndax waaye yaa ngi koy faje aw naaj kon góor du sañ a teg dara ci boppam ngir faje ko aw naaj wala sedd su ko defee rek alamaan boobu daf koy war muy am xaddi tuur deret di ko tàmbalee ci giléem wala nag wala xar wala béy jigéen tam sañta muur xar kanamam sañta muur ay tenqam muy ay loxoom ñaar yooyu itam lu mu ci muur rek am xaddi daf koy war jigéen nag yombalal nañ ko xar kanamam moom lim muur ci boppam mën na koo bàcc wàccee ba mu sëmbërtal ci xar ci kanamam ngir rombante gi mu rombante góor ñi ngir gën a fegu loolu moom danañ ko ko may waaye nag du ko ci pinge du ko téye dee wàcc ci kanam gi nii rek sir bu yaraax boo xam ne du ko tee gis suba loolu danañ ko ko may te am hadiyu du ko ci war a ñetteel bi mooy bul dagg sa karaw bul lelli sa wex bi nga xasee armal loolu araamal nañ ko ci yow waroo dagg sa karaw waroo lelli sa wex loolu nag am na alamaan bu ci war alamaan nag na nga ko xàmmee bokkut ak maanaam hadiyu bi may bi may faral di wax li nga xam ne boo ko defee da ngay war a am xar wala nag wala giléem bokkut ak li nga xam ne boo daggee sa wenn we wala nga dagg sa karaw alamaan bi ñu lay wax kooku fiddee lañ koy woowee loolu dañ ko jàngale boo ko defee la cee war kon bul dagg sa karaw bul lelli we te tey ko su fekkee lor a tax nga def ko nga xam ne da nga darooriya la tam du tey alamaan bi dana la war ndax mën ngaa gaañu ci sa bopp ñu war koo faj te pour ñu faj ko faaw ñu wat karaw gi ngir gis góom bi soit force danañ ko wat waaye buñ ko watee rek alamaan bi dana la war karaw gi buñ ko watee rek da nga def alamaan boobu daañ jàngale alamaan bi lan lay doon moom du doon liñ la wax ne lan nag wala xar wala béy alamaan da buñ lay wax mooy benn nga jël juróom benn nit kenn ku ne nga jox ko ñaari kilo waaw wala nga woor ñetti fan wala bu fekkee sa doole mate na ko tam nga joxe nga reyam xar yooyu loo ci def baax na wala nga xool li nga war a joxe ci aw ñam nu mu toll nga wàññi ñaata liibar la liibar bu ci nekk nga wooral ko ab bis mooy soo daggee sa we baa nga dagg sa karaw dafa am alamaan yu ci war bu dee wenn karawa wala wenn leliti we dafa am la ci war bu fekkee da ngaa dagg wenn wi ab ñaak ngay joxe danañ ci dikk leeral ko fiddi muy moom la ñuy wax maanaam fiddiya eggul ci ñu ne la aw nag wala giléem wala yooyu alamaan la boo xam ne noonu ma ko waxee rek juróom benn nit kenn ku ne nga jox ko ab kilo wala nga woor ñetti fan wala nga jël lu toll noonu ci ca ñam wax xool ñaata liibar la nga woor bis ci toll noonu loolu dana la war ci su fekkee da ngaa dagg sa karaw baa nga leeli sawee moo xam yaa ko tey moo xam téye ko nag alamaan bi dana la war li ñu wute mooy bu fekkee da nga ko tey da nga ciy boole am bàkkaar te boo ko téyul doo ci am bàkkaar loolu la rek waaye loolu moom dañ la koy tere moo xam góor nga moo xam jigéen nga bi ci topp mooy nga bañ a diw gépp diw koy diw ci sa yaram ngir noyal sab der wala rattaxal ko rafetal ko loola boobaa am xadd yu dana la war da ngay am alamaan alamaan bii ngay am moom bii moom bii may wax ni xadd yi lay doon di ko tàmbale ci giléem wala nag wala xar wala bëy da nga ci def benn waaw amaa nag su fekkee la nga diwoo da nga ko diwoo ngir saafara te amul xet gu neex su boobaa maanaam dana dagan danga ko man te xaddi mi du la war waaye nag bu fekkee da nga diw rek ngir bañ a weex ak bëgg a nàññil sa kaaro sa kanam ak yooyu noonu moom am xar daf lay daal di war rek wala bëy te boo ko sa doole matee sax ñu bëgg ci giléem wala nag kon loolu mat a bàyyi xel la bi ci topp mooy parfum na nga ko wattandiku muy parfum bu parfum day ñaar day am lu ñuy wax parfum bu góor ak lu ñuy wax parfum bu jigéen dafay ñaar yoo xam ne ñoom itam yu mat a xàmme lañ suñ nee parfum góor nag jibluñ ci parfum boo xam ne góor ñi ñoo koy jëfandikoo suñ ne parfum bu jigéen itam jibluwuñ ci parfum boo xam ne dañ naan jigéen ñi ñoo koy jëfandikoo déedéet dañu am façon parfum boo xam ne rek loj koloñ la buñ tudde loj koloñ bu góor ak loj koloñ buñ tudde loj koloñ bu jigéen ndax boo xoolee sax loj koloñ bi ñu tudde góor jigéen ñee ko ëpp jëfandikoo loj ko loj koloñ bi ñu tudde loj koloñ bu jigéen itam góor yi ñoo ko ëpp jëfandikoo kon jubluwuñ ci loj koloñ bi góor di jëfandikoo ak loj koloñ bi jigéen di jëfandikoo waaye dafa nekk ñaari façon loj koloñ yoo xam ne bii dañ ko tudde loj koloñ bu góor bii ñu tudde ko loj koloñ bu jigéen loj koloñ bi ñu tudde loj koloñ bu jigéen nag mooy loj koloñ bi nga xam ne day niin te xet gi du gaaw a dem mel na ay misk safaraan ak yu mel noonu ak li ñuy wax miskul kamba ak sikkeeg yooyu nga xam ne day niin xet gu dëgg a dem loolu lañ tuddee parfum bu jigéen li ñu tuddee parfum bu góor nag mooy parfum yi nga xam ne xet gi day gaaw a sàlli te du niin mel ni lu am gaas noonu xam nga yooyu moom la jigéen ñi gën di jëfandikoo te fi ne moom lañ tuddee laj koloñ bu góor liñ tuddee laj koloñ bu jigéen booy xool moom itam moom la góor ëpp jëfandikoo ndax mooy laj koloñ bi nga xam ne dafay niin te xet gu dëgg a dem. loj koloñ bu jigéen boobu nag nga xam ne dafay niin te xet gi du gaaw a dem boobu araamal lañ ko ci yow bi nga xasee armal aj soo ko jëfandikoo rek alamaan boobu daf lay war muy am hadiyu kon nga bàyyi ko xel loj koloñ bi nga xam ne moom la ñuy wax loj koloñu góor nag nga xam ne xet gi dafay gaaw a sàlli te du diis du niin lool kooku nga jëfandikoo ko dañ koo sib rek waaye alamaan du ci war bokk na ci liñ araamal coow bi nga xasee armal nga bañ a sol dara lu ñu ñëw ba mu wër ab cir néew naa da nga jël ab ab cir rek daf ko fa tubéy daa nekk am jël beneen gàll ko ci sa kaw waaye doo sol dara lu ñu ñëw ba mu mën a wér ab cir soo ko defee rek da nga am alamaan am xadd yu dana la war. ay bot sax dañ la koy tere bu dee góor a bu fekkee ay bot nga yor da nga koy sumbut ay carax te bu fekkee amul lu dul bot yi day aju kon nga dagg ko ba mu caraxee nga door ko mën a sol waaye ginnaaw góor nga moom dañ lay tere lenn lu ñëw ba mën a wér ab cir su dee jigéen nag moom kenn terewu ko sañ naa soli bat sañ naa sol luñ ñaw waaye góor daal lañ koy tere lenn luñ ñaw ba mën a wër ab cër waaw waru koo sol su ko defee li ci toppaat mooy bañ a rey aw rëbb boo xasee armal dañuy bëgg loolu kaaba gi fi nga nekk fépp bul fi lor am pitax xëti mboolem xayawaanaat yi naaw ci jaww ji ak yi dox ci suuf yépp dañ la koy tere dafa alxuraan daganal rek mooy rabu géej ndax alxuraan moo ne yaa ayuha allazina amanu laa taqtulu zayda wa antum xurumun da egg ci wa man qataluhu minkum mutaamidan fa jazaahu mislu ma qatala min annaami su ko defee yaxkumu bihi dawa adlin minkum hadiyan baaliqa alkaaba aw kafaaru taami masaakin bokk aw adlu dalika siyaaman mooy alamaan boobu ma doon wax waxaat nag ne uxilla lakum zaydul bahari wa taamuhu mataan lakum wa lissayaara waaye nag wa xurima alaykum zaydul barri maa dumtum orman kon nag wa taqullaha alladi ilayhi tuxsarun yàlla araamal na ci képp ko xas armal muy rey benn rabu jéeri foofee ca orom ja ak ci bitib orom ja lépp ba ba muy yeewi ko loo fa rey nag nee na alxuraan yi dañuy xool lu mu tollool ci juru kër yi nga joxe lu toll noonu boo fa reyit ak kiwal dañuy xool ba xam am xar la toll wala aw bëy lu mu tollool nga joxe ko wala ñu xool lam tollool ku ko defoon njëgam ci wu ñam nu muy toll ñu xool ñam wa buñ ko wàññi ñaata liibar lay doon liibar bu ci nekk nga warul ko ab bis lañ maye rek mooy rabu géej mel na jën moom baa sañ ko wa napp lii nag daanaka sax ñu bari defatuñ ko ndax boobu itam dafa am na béréb ba tëddeewoon bu yàgg la nga xam ne daanaka ñu bari dañ daan dund ci ci rëbb nii ndawal yomb leen woon toujours buñ kiyee dañuy dem rëbb ci àll bi dara jëfandikoo ko yàlla nag moom jublu woon leen natt ci loolu rek xool li ko soob mu digle ko te jàmbe moom li ko war mooy jëfandikal rek waaye fii ne ñi aji ñu bari seen yoon néewul ci rab yi amuñ ci soxla bu fekkee lu mel ne pigeon yi xati yooyu yu ne fa nekk nag moom yooyu ci yin gën a te tere ku ko rey ci la bokk yooyu moom benn rek boo ko ci rey am xar lay war xat yi ngay def xati yooyu fa ne loolu ji loolu nit ñi def doo nga ci jàmm boo amee pepp jox leen boo gëmul maandu ci ñoom te ñoom dañuy wàcc ba jege la waaye sañoo leen a laal boo ko defee rek ab gàtt lay war yeneen rab yi ji des yëpp dem ginnaaw xas nga armal rek tere nañ la ko araam na boo ci rey rek dañuy xool bu mu toll ci juru kër yi nga joxe booba nga joxe nga joxe ko rey ko soo ko amul ñu xool ko natt ko ci aw ñam nga joxe ñam wa boo ko mënta joxe ñam wa ñu xool ñam wa ñaata libar la nga xool libar bu ci ne nga wooral ko ab bis buñ dee ba mu des lu matul libar sax loolee dañ koy jàppi ab bis nga wooral ko bis bu mat sëkk kon armal ba noppi di fa rey dara ci jiir ji it mat naa bàyyi xel ci yéen araamal yow mi nga xam ne dangaa xas armal ak ci la bokk ba ci topp mooy di takk soxna baa ñu lay may soxna te fekk armal nga soo armalee di góoru kenn wóoru laa may soxna wóoru armal aj ba noppi tam di may kenn soxna di takkal kenn soxna saa boo ko defee rek sëy booba du mën a baax soo di jigéen ngi it suñu armal aj ba noppi nekk ci sa aj ñu nekk fii ci Sénégal di la maye déedéet doo mën nekk góor nekk foofa nekk ci sa aj ñu nekk fii di la takkal soxna suñ ko defee rek sëy ba baaxul yàqu na sëy bi nga xam ne yow jigéen ji biñ lay fas yaa ngi ci sa aj baaxul sëy bi nga xam ne yow góor gi biñ la koy fasat li la ko may yaa ngi ci sa aj itam baaxul ak yow góor gi nga xam ne yaa nekk ci biiru aj tam di fasal kenn soxna itam boo ko defee aj ga baaxul donte nag moom am hadiyu di ci war amul alamaan buñ ci wax boo ko defee amul benn alamaan bu la ci war waaye nag sëy ba nga fas moom feccertiku na baaxul kon loolu juróom-ñett la yoo xam ne dañ ko araamal ci ki nga xam ne dafa xas armal bu ñu koy baamu dañ lay wax ne la bi nga xasee armal aj ba ba nga yeewi ko dañ lay fi tere jote ak sa soxna ak lépp li sabab ak jote rek tere nañ la ko araam na te boo ko fi defee te armaloo aj gi yàqu na complètement wane ba yeewi ko yeewi ku njëkk ne def ko moom muy jëmratul xaq ba def nga ko door koo def aj gi du yàqu waaye am hadi dana la war te da nga am bàkkaar boo ko tayee aj gi yàqu nga war a eggale aj gi ba noppi bu déwénee da nga ko fay boole ci da nga defum hadi bi ci topp mooy ginnaaw góor nga bul muur sa xar kanam te itam bul muur sa bopp loolu loo ci def da nga am alamaan am hadiyu dana la war boo dee jigéen bul muur sa xar kanam bul muur say tenq loo ci def moom itam am hadiyu dana la war bi ci topp mooy bul lelli sawe wala ngay dagg sa karaw te tey ko moo xam tëyoo ko moo xam daroori la lu ci ma nekk rek moo xam daroori la moo xam yaa ko tey waaye fit yee dana la war fet yi moom laa la wax léegi ne da nga fekk juróom benn nit kenn ko ne nga jox ko kilo wala nga woor ñetti fan baa nga xool loolu nu mu toll ci ñam nga woo wàññi ñaata libar la bu ci nekk nga woor ko fit yi mooy li ñu waxoon ci ku rey aw rëbb tam xool nga ñu war a xool lu mu toll ci juru kër yi nga joxe lu toll noonu li ci topp mooy bañ a jëfandikoo parfum bu jigéen soo ko defee am xadd yu daan la war moo xam góor nga moo xam jigéen nga. bu fekkee parfum bu góor nag moom dañ ko sib rek la nga def waaye ma xadd yu du ci war bi ci topp may bañ a sol dara luñ ñëw ba mu wérub cër soo ko defee rek alamaan daan la war muy am xadd yu su fekkee góor nga waaye jigéen moom kenn terewu ko loolu bi ci topp mooy li ma wax léegi nga armal ba noppi di reyu rëbb lool di rëbb ci jéeri ji dara di ko rey dañ la koy tere boo ko defee rek loolu danañ xool lu mu tollul ci juru kër yi nga joxe ko baa loolu nu mu toll ci wu ñam baa ñam yi nu mu toll ci ay liibar liibar bu ci nekk nga waral ko ab bis waaw ginnaaw xas nga armal rek moom dañ laa tere fépp rek warul suñu rëbb fenn su fekkoon ne armaloo aj nag xorum ja rek lañ la tere nga rëbb fa xorum ji moom tout le temps dañ koy tere jamono bu nekk ña ngay tere ku faray dara moom garab sax dañuy tere nga ko fa dagg te amoo ci soxla waaw am na yoo xam ne nag maye nañ ñu rey ko moom te fekk nga armal te mooy lépp loo xam ne dafa amee lor ak lépp loo xam ne daa mën a yàq ak lépp loo xam ne day fàdde ci xeeti rab yi yi nga xam ne dañoo mën a yàq mooy lu mel ne ñoom jinax ak ñoom kaña noonu ñooñu moom ñu mën a yàq lañ man ngaa armal ba noppi rey leen te dara du la ci war yi nga xam ne dañoo amee lor lu mel ne ñoom jaan ak jiit yooyu noonu amee dangar yooyu it mën nga leen a kil te dara du la ci fekk yi nga xam ne dañuy fàdde mel ne ñoom xaj sax ci la bokk ak gaynde segg yooyu nga xam ne dañuy lore ñoom itam nga rey leen du du wàññi dara waaye nag loo xam ne amul effet lorewut kooku dañ lay tere nga lor ko. boo ko defee rek ba ci garab sax ndax garab day dund waaw yàlla dafa def sécurité boo xam ne dafa dépassé nit ñi ci lépp la def sécurité foofu lépp daa bëgg mu ñoŋ garab sax waroo ko faa dagg te amoo ci soxla amoo ci soxla mooy xorum ji moom nga armal ak nga ñàkk armal ci yam jamono bu nekk dañuy bëgg worma jooju am fa waaw su ko defee bi ci topp mooy li ma wax léegi boo xasee armal ma tuñ laa may soxna te it sañoo may soxna kenn yow soo ko defee sëy boobu du mën a baax donte am haddu yi nag du ca war su ko defee kon yooyu mooy yi nga xam ne dañ ko araamal ci bi nga xasee armal soo xasee armal rek dootoo sañ yooyu lu dul ne da ngaa dem ba yeewi ko waaw loolu tam lu mat a xam la su ko defee kon léegi dañuy dikk nag jël la spécial nag yow mi nga xam ne da ngaa mel ni ku bàyyi ko Sénégal bëgg a aji étape par étape fenn fu ne la nga fa war a def ba sa aj ba aj ji jeex ba lépp complété daal anam googu lañ ko bëgg a jëlaati nag pour nga mën koo xam bu baax a baax insha allahu taala waaw kon bu ko defee nag léegi ñu ñëw ci yow mi nga xam ne danga bàyyi ko fu mel ne Sénégal am yéene dem aji Màkka ñu bëgg laa toftalal yoon wi nag étape bu ci nekk boo ci tollee la nga war a def ba aj gi di egg su ko defee nga xam ni nga ko war a tërale ndax li ko jiitu moom dañ doon wax rek ponk yi muy farata yi ak farata bu nekk la mu àndal ci ay waajibaat ak i sunna ak i mandubaat tey nag dañu bëgg jël aj gi lépp rek toftaleel la ko ni nga xam ne ni la war a tëddee su ko defee loolu dañ koy jaaree ci liñ jàng ci fiqu Malik ndax waxoon naa ne imaam Malik moom la ñu Seexul Xadim royloo ne woon naa aleykum bil malikiya ndax fa innaha mutaharatu munawara maa ngi leen di dénk ngeen sukkandiku ci Malik ndax ci lu set lu laab ci la jaar do ak donte sax man gis ngeen ma ma jaar loo xam ne dafa wuteek Malik itam bu leen ma ca fekk ndax damaa am sama jagley bopp waaye lim ñu dénk daal ñun ñi ko gëm te topp ko mooy ñu sukkandiku ci mazhabu Malik kon liñ ciy jàngale ci mazhab boobu ci lañ koy sukkandiku su ko defee kon yow mi nga xam ne dangaa bëgg a aji te bàyyi ko fii ci Sénégal wala réew yi mu dendal nga xam ne ñoo mooy Maghreb bi réew yi féete sowu ba ci Égypte ak yooyu dem ñun ñoo bokk benn béréb bu ñu war a armale muy Rabiq moom la ñuy wax jox fa bu njëkk foofu fi lañu war a armale Sénégal nag ñun fii li ëpp ci ñun ñi fiy faral di jóge di aji dañuy faral di njëkk a jaar Madina dañuy njëkk a jaar Madinatul Munawwar ngir ziyaare yonent bi aleyhi salaatu wasalaam door a ñëw Màkka def aj gi ngir suñ ci noppee rek mën a wàññiku dellu si Sénégal ndax ziyaare yonent bi aleyhi salaatu wasalaam da ci lu am solo ndax moom moo waxoon ne man zaara nii baada mawti fa ka annama zaara nii fi xayaati képp koo xam ne daal ziyaare na ma ci ginnaaw boo xam ne làqu naa bu mu fi jógee ku ñëw ci sama xabru nemmi ko ma mel na ne fekkoon na ma may dund mu ziyaare si ma kon loolu lu am solo la ba tax na fii ci Sénégal moom dañuy njëkk a jaare Madina moo tax léegi sax wàccutun Jidda dañuy def direct Madina suñ demee nag am fa ay fan def seeni ziyaar door faa bàyyi ko nag ñëw màkk ngir def aj gi su ko defee kon bu fekkee yàlla dogal na ngeen dem foofee muy madinatul munawwara ba am fa fan ya ngeen fa nam ma am ba war faa jóge nag jëm si màkk diggante boobu ci ngeen di jot seen miiqa bi nga xam ne màkkaan la mooy miiqa bi nga xam ne ci ngeen war a armale seenug aj ci ngeen war a yéene tàmbale ci seenug aj du tee sax ñu sopp nag ngeen ànd ak waa madinatul munawara bokk fu ngeen armale waaye du tee yéen ñi bàyyi ko fii ci soow bi moom bu leen neexoon bu leen neexoon romb fi waa madinatul munawara armale te du tee da ngeen jot seen miixa ci kanam ndax neewoon naa leen yéen a bokk aw yoon rabix bi ngeen war a armale mi ngi ci kanamam waaye nag sopp nañ ngeen ànd ak madina rek fañ armale ngeen armale fa am na ay waajukaay ak yépp bu ngeen ca tolloo kon su fekkee yàlla dogal na ngeen egg ca yéen ngi war a toll ci armal armal nag dañoo waxoon ne moom mooy yéene mooy fas gi nga fas yéenee def aj gi waaye nag armal dafa am lu mu àndal ci ay sunna ak i waajibaat ak yun sopp yoo xam ne dafa aju ci armal kon ginnaaw yaa ngi bëgg armal ñu ngi lay wax ne sunna la ci yow nga sangu cangaay li nag yaa ngi koy defee ni ñi sangoo farat béréb bi sangukaay yu bari mi ngi foofu yaa ngi fay sangoo ne nga xam ne ni lañu ni sangoo janaba ni ñi sangoo janaba di ko sangoo dereti wasin ju jeex wala dereti mbërëg cangaay lu mel noonu moom ngay sangu cangaay loolu sunna la bu aju ci armal boo sangoo ba noppi nga daal di sol sa yére su fekkee jigéen nga nag mën ngaa sol la neex na jot rek waaye bu fekkee góor nga dañ lay tere nga sol loo xam ne dañ koo ñaw dañuy bëgg rek nga jël dara def ko fa tubéy daa nekk woddoo ko jënd nag leneen gàlle ko ci sa kaw lépp na ngir toroxlul sa borom subhanahu wa taala su ko defee ko new góor noonu ngay soloo ba ci ay dàll bu fekkee dàlli bot la yu ñaw gudd noonu doo ko sañu sol te su fekkoon ne amul lu dul moom kon day aajowoo nga wàññi ko dagg ko ba mu da def ko ay carax kon daal dara lu ñu ñëw ba mën a wër ab cër rek xamal ne boo ar booy armal du fekk nga sol ko te dañ la koy tere moo xam mbaxana la wala kaala lépp loo mën a muuroo ba mu fajal ab sedd wala naaj rek dañ la koy tere kon sangu nga te itam solo nga moo xam ngay góor wala ngay jigéen boo dee góor nag nee na la moom lañ la tere lu ñëw waaye jigéen kenn terewu ko kon def nga ñaari sunna muy cangaay li ak col gi su ko defee dañuy bëgg itam nga julli ñaari rakaa yoo xam ne da nga koy sësale ci armal bi ngay bëgg a def ndax armal muy yéene tàmbali sak aj dañoo bëgg mu topp ci ak julli nga xam da ngay sëlmale ci ak julli daal di koy def su fekkoon ne yàlla dogal na nag mu tombeek julli farata kon da ngay julli julli farata ga ba sëlmal rek daal di yéene aj sësale ci waaye su fekkee yàlla def na tombewut ak julli farata te fekk na muy waxtu woo xam ne dagan naa naafile dañu bëgg nga julli ñaari rakaa yoo xam ne rakaa yooyu ngay julli sunna la su ko defee boo sëlmale daal di armal sa aj mooy daal di yéene sa aj kon bi nga sangoo te solo bëgg nañ nga julli ñaari rakaa loolu nag sunna la su fekkoon ne yàlla daa dogal tombewut ak waxtu julli te itam fekkul muy waxtu woo xam ne mën ngaa naafile waxtu wu ñu siba naafile la subaa bu la neexee da ngay armal rek ci lu dul ngay def ñaari rakaa yooyu te du tee armal bi dana baax kon sangu nga te itam solo nga ci niñ ko bëggee julli nga ñaar rakaa rakaa yooyu nag sopp nañ nga jàng ci ci rakaa bu njëkk bi ginnaaw fatiha qul ya ayyuhal kaafiruun rakaa ñaareel bi ginnaaw fatiha qul huwa allahu ahad ñaari saar yooyu lañ sopp nga jàng ko ci ñaar rakaa yooyu nga xam ne moom ngay julli bi nga ko jullee ba sëlmal kon foofu nag fi nga yéenee sak aj ak xeetu aj bi nga xam ne moom nga nam ma def su fekkee da ngaa bëgg a def li ñuy wax ifraat te fiqu maalik bii may wax ak yow moom lañ gën a taamu may nga wax labbayk allahuma xajjan wax ne sa boroom yéene na ma aj si néeg bii kon yàlla na ñu ngi ko yombalal te nangul ñu ko wala nag wuy si nga yàlla ngir def aj waaye yaa ngi def li ñuy wax ifraat ifraat nag mooy yéene aj kase rek soo ajee ba eggal nag ci fiqu maalik moom sopp nañ nga def umra sësale ci door a ñibbi waaye su la neexee itam nga ñàkk koo def waaye ifraat daal moom mooy aj kase rek su fekkoon ne da ngaa bëgg a def li ñuy wax xiraan nag mooy da ngaa lënkale aj ak umra labbayka allahuma ajjan wa umratan mooy nga wax ne yàlla fas na ma yéene aj si néeg bii boole aj ak umra yàlla ñu ko yombalal te nangul ñu ko su ko defee daal leen ni boole su fekkee da ngaa bëgg a def li ñuy wax tamato mooy nga yéene omra kase soo defee omra ba noppi daal di yeewi kuwaat ci aj sañ mboolem liñ la tere woon buñ nee ba egg ci yow ma tarwiya jub si wala buñ ci eggee nga daal di armalal aj ànd ak ujaa ji daal di aj kon ñetti façon yooyu moo am am na lu ñuy wax ifraat waaye mooy xiraan rek moo tax jërul baamu su ko defee kon yow bu fekkee ku bàyyi ko fii nga te sukkandiku ci mazhab bii ñuy wax muy malik yi kon boo egsee mën ngaa def rek li ñuy wax ifraat doon di sax xam ne ñuy taamu tamaton waaye ifraat daal da nga ko mën a def ba la soobee xam nga boo ko defee am hadiyu du la war xar mi ngay rey du la war mën naa ñàkk fa man tamaton bil umrati ilal ajji kooku lañu wax ne fa mastaysara min al hadiyi su ko amul nag fa man lam yujidd fa siyaamu thalathata ayaamin fil ajji wa sabxatin isaa rajaatum tilka asratun kaamila ki def tamato wala xiraan kooku la hadiyu mi di war waaye ifraat bi ma lay wax sax boo ko defee hadiyu moom du la war waaye boo defee tamaton wala xiraan it day tax hadiyu mu war la day fekk nga doon koo xam ne dëkkoo màkk waaw waaye bu fekkee ngay ko dëkk màkk du la war ndax dalika li man lam yakun ahluhu xaadir al masjid al haram la alquran wax kon léegi armal nga ifraat ci misaal yéene nga def aj bi nga xam ne moom mooy aj kase rek ndax sangu nga te itam solo nga julli nga ñaar rakan sëlmal daal di yéene foofu sa aj yéene googu nga yéene aj gi nag loolu la ñuy wax armal moom mooy farata boo xam ne soo ko defutoon aj gi du mën a baax bi nga ko yéene nag dañuy bëgg nga daal di tàmbali di wax labbayka loolu nag xamal ne mu waru gar la waru gar nag bu ma ko waxee mooy loo xam ne boo ko bàyyee am alamaan am hadiyu da lay war donte ifraat nga def ndax da ngaa bàyyi waru gar mooy da nga rey giléem wala nag wala xar wala bëy kon fi nga armale rek dañoo bëgg nga daal di tàmbali fa sa tàmbali wax labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika laka labbayka inna al hamda wa ni'mata laka wal mulk laa sharika lak loolu moom ngay wax di ko baamu bi nga armalee loolu warugar la soo ko yeexee wax ba bis bi jàll wala sax genn wàll bis bi jàll te tàmbali woo ko wax rek armal boobu maanaam alamaan boobu dana la war muy am hadiyu waaw kon loolu nga bàyyi ko xel kon armal nga ci zamiqa tàmbali nga di wax labbayka jooju labbayka jooju ne dafay mel ni benn zikkar rek bu ñu la jox ne la dee ko zikkar ba ba ñuy egg ci juróom-ñeenteelu fan ba ci weeru tabaski mooy bu ñu nee suba la tabaski mu yawma arafa bu ñu ci eggee ca bëccëg ba tisbaar jot ba nga dem ci jullikaay ba foofa fa nga koy bàyyee dootu ko wax li des ci sa aj li ñuy sukkandiku ci mazhabu Malik kon yaa ngi wax labbayka nag wuti màkk ndax fi nga armale taxul nga egg màkk danga armale rek benn ci zul xulayfa muy fi waa madinatul munawara di armale wala nga armale fa ñuy wax jon fa muy rabiq foo ci armale rek taxagul nga egg màkk kon fa ngay bàyyi ko nag wuti biir màkk dégg nga am na lu ñuy wax tam cangaayal dugg màkk cangaay la doon loo xam ne kon da ngay xëppoo rek ndax dañuy bañ ngay bomb ndax léegi xas nga armal te bëggatuñ nga rey dara te boo bombee sa kaw yaram amaana nga rey nga bombaale ci ndundal wu ndaw woo xam ne doo ko seetlu daal di koy rey te fekk araamal nañ ci yow nga rey dara bu ngeen duggee màkk nag fekk na diir boobu bépp rek yaa ngi wax labbayka labbayka allahumma labbayka labbayka laa sharika lak labbayka inna al hamda wa ni'mata lak wal mulku laa sharika lak ay kàddu yu kawe la yu bàkk sa borom te jox ko lim moom moom nag duñ bëgg nga di ko ngàlliku ca kaw a kaw ba tax ngay sonn ndax kon mën ngaa dem ba egg ci coono bi bu la jàppee duutu ko teewlu salaam ñu koy tudd rek te dañoo bëgg li ngay wax nga di ko bàyyi xel di ci teewlu màggug sa borom subhaanahu wa taala dañu bëgg itam mu xaw a nga bañ ko yàllu tam ba mu ëpp ñu bëgg itam saa boo sonni noppalu moom daal du la yàqal wax farata du la yàqal tam def farata. te it du dox sa digganteeg nelaw wala noppalu saa boo xamee nekk koo ci wax farata nekk koo ci def farata te sonnoo bay noppalu baa ngay nelaw rek nag boo dañuy bëgg nga di ko wax ak foo mën a nekk su ko defee ne kon yaa ngi koy wax wut si kaaba gi bi nga ñëwee ba ci kaaba gi dañuy bëgg nga jaare ci baabu shayba bunt la boo xam ne ci lañ bëgg nga jaare ci booy dugg ci kaaba gi bu la jàppandee léegi nag boo duggee ci kaaba gi boo duggee ci jàkka ji boo ne yulub ci jàkka ji rek jàkka ji dafa ëmb kaaba gi boo duggee ci biir rek léegi da ngay daal di jawali xajarul aswad fóon ko da ngay daal di nag bàyyi wax ki nga doon wax la bayka ndax léegi da ngay bëgg a tàmbali di wër te wër kaaba boo koy def ñaan lañ fa bëgg wër kaaba boo koy def la fay sunna mooy ñaan waaye dee su fa wax la bayka jamono bi ngay wër kon dañ naan bi nga ne yulub ci biir jàkka ji rek dañoo bëgg nga jawale li ñuy wax xajarul aswad nga fóon ko fóon googu nga koy njëkk a fóon nag moom sunna la soo ko fóonee ba noppi nag door a tàmbali nag di ko wër wër gi nga xam ne moom la ñuy wax tawaaful xudum muy wërug dikk màkk tawaaful xudum muy wërug dikk màkk yow mi nga xam ne dëkku màkk da nga aj si booy door rek si wër googu ngay njëkk wër moom la ñuy wax tawaaful xudum wër googu moom itam waru gar la ndax wax naa la ci ginnaaw ne la wax la bayka warugar la ci bi nga armalee waaye waru góor ngay def muy tawaaful xudóom moom itam warugar la soo ko bàyyee da nga am alamaan mooy da nga tuur deret di tàmbale ci giléem wala nag wala xar wala béy kon moom itam boo egsee dañuy bëgg nga def ko tawaaful xuddum boobu boo koy def nag ñetti yoon yu njëkk yi dañuy bëgg nga ñëkk ko te noonu nga soloo sa sa colog armal dañoo bëgg nga génnee si mel ne mbaggum ndeyjoor muy feeñ waxoon naa la ci ginnaaw ne la sabab bi yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi nga xamee ne mi ngi madina yéefar yi dëkkoon Màkka dañ daan wax naan ah yonent bi de ñi ko topp day madina neexul ci ñoom mooy ñi gàddaayoon dem madina naan ni madina neexul ci ñoom ndax léegi ñoom dañoo yooy ñu ngi jeex tàkk noonu bi ñu déggee loolu nag moo tax bi ñu agsee yonent bi ne alayhi salaatu wasalaam ne ñett yoonu njëkk yi nañ ko ñukk bañ xam ne néewuñu kàttan ndax ku ñàkk kàttan du daw génne seen mbaggam ndeyjoor boole ci noonu pour wan leen ne ñoom physique liñ daal maanaam daal fi ngeen ñuy xool nekkuñ fi kon ñett yoonu njëkk yooyu dañ koy ñukk waaye mbo bu dee loolu mel ne tawaaful ifaada ak tawaaful wadaa duutu ci am ci tawaaful xudóom rek la am muy ñukk gii te ñukk gi daanaka mën nañu wax ne sax léegi mu dañ ndax léegi day xat ba nga xam ne waaxu képp kenn mënu ko ci wër Kaaba rawante na nag daw kon nag bul ko jéem boo ko mënut ndax nit ñi ñooy bare su ko defee kon ñëw nga biir màkk dugg nga fóon nga li ñuy wax xajarul aswad fóon googu nga ko njëkk fóon nag sunna la waaye nag bëgg nañ juróom-ñaari yoon yi ngay wër Kaaba gi yépp saa boo ci agsee nga fóonaat ko fóon yooyu nga koy fóonaat nag moom maanaam lu ñu sopp rek la waaye eggul ci sunna waaye nag fóon gi nga ko njëkk fóon laataa ngay tàmbali moom moo nekk sunna soo nappee nag daal di tàmbali di wër te ñett yoon yi nga njëkk wër nga ñukk ko ma xaw a mel ne kuy daw te doo egg ci daw dëgg-dëgg door nag dox ñeenti yoon yi nga xam ne moom moo ci des muy tawaaful xudóom bi kon loolu ngay noonu nga koy defee da ngay ñukk ñett yoon yi njëkk yi door dox ñeenti yoon yi ci des te xam ne nag bokk na ci wari gari tawaaful xudóom nga wër ko ba mat juróom-ñaar yoon yu mat sëkk loolu war a gar la ba manqué benn na mat juróom-ñaar yoon yu mat sëkk te itam juróom-ñaar yoon yi dañoo bëgg nga sësale leen nga xam doo wër ñaar yoon ak ñett rek toog di noppal déedéet da nga leen di sësale ba mu egg waaw soo defee ab lim bàyyi ba mu yàgg naan da ngay egg la wër gi day yàqu day aajo nga defaat ko ndax sësale gi waru gar la mat gi juróom-ñaari yoon tam waru gar la wër gi juróom-ñaari yoon ko war a def jamono bi ngay wër nag dañoo bëgg ngay ñaan waaw yaa xam li nga bëgg nga di ko ñaan sa borom subhanahu wa taala taamu nañ ci nag ngay wax rabbana aatina fi dunya xasanatan wa fil axira xasana wa qina asaban nar su ko defee kon boo wëree ba juróom-ñaari yoon yi mat yaa ngi war a julli ñaari rakaa ci maqaama ibrahim te boo wër kaaba nga bàyyiwaale xel xel saa sarwaan bi ak miiru kaaba gi nga bañ koo laal ndax bu fekkee da ngaa jàpp ci buum yi wala nga aj wékk sa loxo ci miir bi ànd ak moom di dox di wër kon wëratoo ko li ngay wër da nga koy sori ba sa dara laalu ko ngay dox di ko wër saa sarwaan boobu dend kaaba gi muy miir bu gàtt boobu dong te nga di ko wëraale ndax dañ ne ci kaaba gi la bokkoon biñ koy liggéey lañ amutoon alal ji ko matale rek jule waaye ci la bokkoon da nga koy wëraale wëraale googu ko war a war a wëraale moom it du mën a ñàkk nga bàyyi ko xel su ko defee boo noppee nag ci ngi julli ñaar rakaa ci maqaama ibrahim digganteem ak kaaba gi yaakaar naa ci ay 15 mètres lay toll fukki mètres ak juróom du ko sori wala wala wala wala mu manqué tuuti moom itam foofu dañ ne fi la ibrahima taxawoon bi muy liggéey kaaba gi xanaa loolu bu ñu la ko waxee nag mën na laa jaaxal ndax dañoo xaw a sore waaye kaaba gi ci boppam moom moo rëyoon loolu ñu ci yëkkati tabax ko li muy rëy rëy ëppoon na ko fondement bu njëkk ba ëppoon na loolu waaw maqam ibrahim gis nga noonu mooy nekk ci wetu kaaba gi xanaa du ñàkk nga yàgg ko gis ci télé bi am na lu mel ne benn weer bu ko tiim boo xoolee ci biiram fi gis lu mel ne ay tànk tànk yoo xam ne daa mel daa jóge woon fu tooy ba wow di màndargaal rek taxaw ga fa yonent yàlla ibrahima taxawoon di liggéey béréb ba su xatee nag bu mënoo ko faa julli faneen foo ko jullee ci biir jàkka ji rek baax na waaye tawaaful xudum moom du mën a ñàkk ñaar raaka topp ci ginnaawam faw boo noppee nga teg ci ñaar raaka ñaara kan ay nag ci maqaama ibrahim lañ ko taamu waaye bu xatee bu mënoo ko fa leen foo ko jullee ci biir jàkk ji baax na léegi nag day xat lool ba kenn daanaka du ko fa mën ndax dañuy wër ba di ko wëraale sax moom kon xam nga ne daanaka mën na sukk faa defeeti waaye nag foo ko defee ci biir jàkk ji rek mu baax kon dugg nga ci biir kaaba gi ma ne la bàyyi la wax ki nga doon wax la bayka te wër ko nga tàmbali fóon xajarul aswad daal di tàmbali di ko wër wër ko juróom-ñaari ñu toftaloo te ñett yoonu njëkk yi nga ñukk ko te juróom-ñaari yoon yépp saa boo egsee ci xajarul aswad fóonaat ko fóon goo xam ne dañ ko sopp rukkunul yamaani itam mi ngi ci waxuma la ko waaye ba wëree ba paase koñ boobu xajarul aswad nekk ba wër ñaari koñ yi des bay egsiwaat ci koñ boobu ko ñetteel da nga fa fekk ñu foofu la ñuy wax rukkunul yamaani moom nag loo ko jege-jege lu mu féex féex du tax nga di ko fóon da ngay jël sa loxo rek teg ci kawam daal di jëlaat sa loxo teg ci sa gémmiñ te doo ko mocc xajarul aswad nag moom da ngay jël sa gémmiñ teg ko ci bu jàppanee bu jàppandiwul nga doon jël sa loxo teg ci teg ci sa gémmiñ bu jàppandiwul nga laalee ko bant bu jàppandiwul nag nga junj ko ak sa loxo rek wax allahu akbar daal di continuer rukunul yamaani moom itam bu jàppanee ba nga mën caa teg sa loxo da nga cay teg sa loxo rek teggiwaat sa loxo teg ci sa gémmiñ te bañ koo mucc kon noonu ngay def boo noppee julli ñaar rakaa yooyu ma la wax ci maqaama Ibrahima foofu nag fi ngay war a génne nag defi li ñuy wax dox safa ak marwa. fi ngay war a génne defi li ñuy wax dox safa ak marwa dox safa ak marwa nag moom itam ponk la ci ponki aj maanaam ab farata la laa bëgg a wax ab farata la nekk ponk ci ponki aj su ko defee moom itam kon dañ koy tudd léegi nag bi nga tollee ci war a génn ci kaaba gi ngir doxi safa ak marwa nag dañu bëgg nga ñëwaat ci doj yu muy xajarul aswad fuunaat ko fóon googu fóon la goo xam ne fóonu tàggatoo lañ koy wax may da ngay mel ni koy wan ne yaa ngi koy tàggu ngir doxi safa ak marwa ngay dikkaat ci xajarul aswad fóon ko fóon goo xam ne fóonu génn ngir doxi safa ak marwa lay doon bi nga defee tawaaful xudduum ba noppi rek yow mi nga xam ne ngaa aj si dañoo bëgg foofu nag fi daal di sësale sa dox safa ak marwa nga génn rek wuti nag safa ndax yonent bi alayhi salaatu salaam fa la njëkkee woon ba mu koy def waaw dafa njëkkee woon safa da ngay dem moom bi mu nee ba yéeg ci kaw safa boobu mi ngi naan abda'u bi ma bada allahu bihi maa ngi tàmbalee ci li nga xam ne ci la suñu borom subhanahu wa taala tàmbalee daal ne inna safa wal marwata min sha'airillah wane ne yàlla bi mu ko tudd ci alxuraan kat safa la njëkk a tudd kon ci safa ci laa koy tàmbalee dem ba ci kaw safa ba taxaw jàkkaarloo kaaba gi di ko gis door a tàmbali nag ab doxam nga xam ne day bàyyi ko safa dem ba marwa jógewaat marwa dikkaat ba safa dellooti ba marwa dikkaat ba safa ba mat juróom-ñaari yoon nga xam ne juróom-ñaari yoon yi su matee da nga gis ne fenn fu ne rek taxaw nga fa ñeenti yoon dox safa ak marwa kon moom itam farata la ci aj munta ñàkk boo ko deful ba waxtoom jàll sa aj day yàqu kon du mën a ñàkk diggante bi ngay dox safa ak marwa nag bëgg nañ fi ngay ñaan ak jàngalu mel alxuraan di ñaan yonent bi alayhi salaatu wasalaam bi mu koy def nee nañ mi ngi naan rabbi xfir warxam wahdini sabila al aqwam ak naan rabbi xfir warxam annaka al aazzu al akram ñu baat yu kawe rabbi xfir warxam wahdini sabila al aqwam rabbi xfir warxam annaka al innaka al aazzu al akram wala annaka al aazzu al akram di wax sa borom boromam subhaanahu wa taala naan ko yàlla yàlla nga ñu jéggal te yërëm ñu te gindi ñu ci yoon wi nga xam ne moom moo gën a jub yàlla yàlla nga ñu jéggal te yërëm ñu yow mi nga xam ne yaay ko tedd ki yaay yaay ko kawe ki waaw Aziz nag ak Karim xaw nañoo wuti tuuti Aziz mooy ku boole xalabatu ak qaharu ñaari force notel yu bokkut Akram nag mooy Karim moom mooy ku ku baax tabe am teraanga mooy nit ku baax loolu yonent bi bi muy def safa ak marwa mi ngi koy wax ci diggante bi di ko ñaan kon diggante safa ak marwa moom itam dañuy bëgg nga fay ñaan loo soxla boo dee ba ca kaw safa itam taxaw fa jàkkaarloo kaaba gi ñaan boo dee ba marwa noonu diggante bi tam ngay jéggalu kon noonu la dox safa ak marwa juróom-ñaari yoon nga koy baagante diggante safa ak marwa am na lu ñuy wax batul masil ci diggante bi boo ci eggee dañuy bëgg nga ñukk ko waaye ñukk googu bu fekkee góor nga moo tax ñuy wax waaye bu dee jigéenam moom du ko jar. wër kaaba it ba ma koy wax ñukk googee ma doon wax bu dee góor lañu wax waaye jigéen ñukk googu moom kenn tegu ko ko xaja safa it dañuy bëgg nga yéeg ba ci kaw boo eggee ba ci marwa it nga yéeg ba ci kaw waaye loolu ba tey bu dee góor a waaye bu dee jigéen su ko neexee lu mu yéeg ci doj wi rek mu doy safa ak marwa nag waxoon naa ne diggante bi léegi gën naa am ak jàpp ndal ndax dañ ko gën a liggéey ba nga xam ne daanaka naaj mën na la defee bañ a tiim diggante bi ñeenti téeméeri mètre la ak juróom waaye dañ ko def benn weer ndaawu yaatu comme yokk jumaa ji noonu ma la ko waxee woon rek bàyyi fi yoonu dem ak dikk ñi nga xam ne puus puus la yore tam dañ leen a bàyyil ñaari yoon ci digg bi nga baagante ko juróom-ñaari yoon waaye nag moom day sës ci ak wër Kaaba comme bi nga defee tawaaful xudóom rek kon na nga góorgóorlu ba sësali ko ci ndax bi nga defee tawaaful xudóom kat boo ko ci sësaliwul daan ne da ngaa sonn dem toogi noppalu ba mu yàgg nga ne damaa bëgg a doxi Safa ak Marwa day aajo nga wëraat Kaaba su boobaa juróom-ñaari yoon wër goo xam ne da nga ciy yéene ak war ba noppi wéral ko ndax dox Safa ak Marwa ngir mu mën a baax faaw day topp ci wër Kaaba kon foofu bi nga dikkaatee bu fekkee bi nga defee tawaaful xudum dal di wu ko ci toftale rek saa ba dee ba bëgg koo def rek faaw nga wëraat Kaaba juróom-ñaari yoon julliwaat ñaar ak ci maqaam Ibrahima door ko caa mën a toftale. kon bi nga defee tawaaful xudum rek sooy booloo sonn sonn nga góorgóorlu rek jéem ci boole sax dox Safa ak Marwa benn yoon yow mi nga xam ne da ngaa def ifraat soo doxee Safa ak Marwa juróom-ñaari yoon nag léegi daal di mën a nag dem dallu. dem dallu nag ba keroog ñuy egg ci yow ma tarwiya lii ma la wax nag moo xam bi biñ duggee weeru kori ndax neew naa la buñ duggee weeru kori rek su la neexee armal aj weer aj dugg si na su fekkee bañ waree rek nga nga nga armaloon kon boo egsee ba def lii rek da ngay daal delluwaat sab dal waaye nag mboolem yooyu ma waxoon ne araam na ci ko armal xamal ne araam na ci yow moo xam ci weeru kori we nga armal wala weeru digg wi ci nga armal wala sax bi ñu duggee fukki fan yi mujj yi fukki fan yi tabaski yi bi ñu ko duggee nga armal sama classe gi ñu bari ñi nga xam ne sawaruñ ñemewuñ coono ñoom dañuy bàyyi ba aj gi gën a jege ñu door a armal ndax boo xasee armal dafa bari yun lay tere yu bari yoo xam ne doo ko sañ boo àndoon ak sa soxna di aji dootoo sañ a jotee ak moom dootoo sañ a jëfandikoo parfum noonu ma la ko waxee doo sañ a muur sa bopp doo sañ a sax daggati say karaw wala say we ak yu bari yoo xam ne daal doo ko sañ yooyu yëpp dañ la koy tere moo tax nag soo teelee armal moom da nga sonn ndax da nga am diir bu yàgg boo xam ne yooyu yëpp doo ci sañ dara moo tax ñu bari dañuy bàyyi bañ dugg weeru tabaski daanaka ñu door a armal nga xam ne seen diggante fi ñu armale ak fi aj gi gën a tàmbaliwaat dëgg-dëgg ñu eggal leen dese dootu bari kon daal bi nga dikkee màkk ba ñëw ci kaaba gi def tawaaful xudum noppi dox safa ak marwa léegi dañ lay sant rek nga delluwaat nag léegi ci sab dal nga xam ne doo sori kamba gi doo sori jàkka ji fi nga dal bëgg nañ ci yow lool nag waxtu wu jot rek soo ko mënee nga fexe ba julli ji ko ci kamba ga ci jàkka ja jàkka ji moo ëpp néeg bi waaw ak foo mën a dal rek ginnaaw soriwu la bëgg nañ waxtu wu jot rek nga fexe ba jullee ko fa nekk ci say jaamu ak say jéggulu sa borom ak bàkk ko te respecté waxtu julli juróom yooyu fexe ba jotee nga defee ji ko ci jàkka ja ba keroog ñuy egg si ci yow ma tarwiya yow ma taru yéen mooy bunnee tey la juróom-ñetti fan ci weeru tabaski moog bunnee juróom-ñeenti fan diggante yi day fekk nga tàmbaliwaat nag léegi lu aju ci aj gi buñ egsee ci yow ma taru sax ki nga xam ne dafa demoon dafa defoon tamaton foofu de fi lay armalewaat aj ndax tamaton mooy koo xam ne dafa armaloon umra kase te xam nga ne umra neewoon naa la bu bu bu bëri baxatut waxtu rek mën nga ko cay def nga xam ne ba mu armalee umra ba noppi rek daa yeewi ko woon sañaat lépp luñ ko doon tere. ba keroog ñu egsi ci yow moom tarwiya moom itam mu door a aramal aj toftale ci loolu la ñuy tudde tamaton kon yow mi nga xam ne yaa ngi aj bu ñu egsee ci yow ma tarwiya rek bis boobu ci ngay tàmbaliwaat nag am yeneen mbir yoo war a tàmbali di defaat nag aj gi tàmbali tàmbaliwaat tàmbali goo xam ne ci ngay sofale léegi loo jóge tof ca teg ca la ci topp ba keroog aj gi jeex foofu daanaka nopp lu amatu fi moom moo tax day metti lool moo tax yow ma arafa li ñuy sopp sopp ko ko woor soppuñ ko ci ku ci ku nekk ci aj ndax kuy aj coono bi bi muy àndal bu ko bëggee booleeg woor bis boobu mën na cee xaw a loro su ko defee kon yow ma tarwiya dañuy bëgg boo xëyee ngeen fexe ba tisbaar fekk leen minan ngeen fexe ba jullee ji fa tisbaar tisbaar jooju buñ ko fa jullee ilimaan bi dana fa waaraate jàngale fa itam nit ñi aje fàttaliwaat ko bu baax a baax baax def fa xutba bu yaatu daal boo xam ne bu kenn ko ne bëgg nga fexe ba tisbaar fekk la fa suñ fa jullee tisbaar nekk fa ba julli fa takkusaan nekk fa ba julli fa timis nekk fa ba julli gee ba fanaan fa buñ fa fanaanee nag ba xëy suba nag muy juróom ñeenteelu fan bi ñu ko wax yow ma arafa yow ma arafa nag buñ yeewoo nag bam bam naaj dañu bëgg nit ñi wuti nag jullikaay ba ndax dañuy bëgg bu tisbaar jot fekk ñëpp daje ci jullikaay ba kon juróom-ñetteelu fan bi nee naa la yow mi nga xam ne aj si woon nga liñ ci taamu ceew mooy na la tisbaar fekk minan ngeen jullee fa tisbaar ak elimaan mu def fa ay xutba muy waaraate ak jàngale mbirum aj ak fàttali yi ñu ciy tere yépp ko defee ngeen yenn mi naan ba julli fa tisbaar ak takkusaan ak timis ak gee ba fanaan fa bu ngeen xëyee suba nag moo nekk juróom-ñeenti fan ci tabaski di yow ma arafa yow ma arafa jooju nag laa la waxoon ne la bu ngeen ci egsee ba tisbaar jot ci ngay door a bàyyi la bayka ndax kat xamal ne ba nga agsee ba defoon tawaaful xudóom dox sawaak maro ba noppi may la woon léegi dellu sab dal te fexe ba waxtu julli juróom mu jot nga fexe ba jullee su ko ci jàkka ji diggante boobu bépp nag sa zikkar mooy la bay ko jooju ma la waxoon rek saa bu nikkool ci wax farata def farata rek yaa nga ca woon ba tey jii nag nga xam ne mooy yow ma arafa yow ma arafa nag bu tisbaar jotee la ñëpp daje nag ci jullikaay bi moom itam bu tisbaar jotee ba nga dem ci jullikaay bi nag foofu nag fi ngay bàyyi sag wax la bayka bàyyi goo xam ne dootoo ko waxati ci aj gi jeex na bu dee li ñu sukkandiku ci mazhabu malik bi foofu itam élément bi dana fa jiite nit ñi tisbaar ak takkusaan te wàññi leen nga xam ne ñaari waxtu yëpp dañ koy wàññi xam nga tisbaar lañ ci xamoon mooy ñeenti rakan waaye suba ñaar rakan rek lañ koy def bu ñu noppee daal di noor de la takkusaan xaat te waxtum jotagut moom itam daal di koy julli wàññi ko def ko ñaar rakan rek buñ ko defee ñaar rakan moom itam nag sëlmal élément bi foofu dana fa def ñaari xutba yu mag moom itam yoo xam ne dafay jëm ci waaraate dana waxtaan nag ci domaine yu bari xew-xewi jamono ak fi jamono toll yu bari dana ko dana dana dana ko dana ko waxtaane waare ci ñaan yàlla baax keroog yendu googu ñu yendoo arafa taxawaayu arafa boobu muy taxawaayu bëccëg gi waxtu ñaan la ak jéggulu sa borom subhaanahu wa taala taxawaayu arafa lu am solo la yonent bi wax na ci ay wax yu baree baree baree bari ci ay ngëneelam waaw kon nañ ko fonk bu baax ku ci yàlla yóbbu saa boo ci egsi bëccëg googu leen ilimaan ji di tisbaar takkusaan ngeen war faa nekk ba jant soo diggante boobu loo soxla na nga ko ñaan sa borom te lépp loo bëgg mucc nga jéggulu ci ay bàkkaar nga jéggulu ko sa borom subhaanahu wa taala te képp ko lu yóbbante woon ne boo demee màkk nag ma ñaanal diggante yooyu na nga ko fa bàyyi xel bu baax ci ñaan te xam ne diggante yi ñu nangu ak ñaan la su ko defee nag nekk ngeen fi nekk rek tàmbalee ci bëccëg gi ba jant soo loolu warugar la taxawaay la boo xam ne moom la ñuy wax taxawaay bi nga xam ne moom waajib la nga xam ne su la rawoon ba defoo ko rek am alamaan dana la war muy da nga defum hadiyu bu jant soo nag ci ngeen di door a egsi nag ci taxawaay bi nga xam ne moom mooy farat nga xam ne kon yow ma arafa yéen a ngi yendoo arafa ba takkusaan romb ba timis ngeen door a nag jóge arafa ci timis gi bi jant soo ba nga xam ne guddi gi tàmbali na ci ngeen di jóge arafa dem musdalifa nga xam ne musdalifa sax fa ngeen di jullee ji timis ak gee timis ak gee yéen ngi koy jullee ji musdalifa ndax taxawaayu arafa ci guddi gi mooy farata bi nga xam ne moom itam ku ko deful sa aj yàqu na al ajju arafa la yonent bi wax taxawaayu arafa bi nga xam ne mooy farata nag mooy bi tàmbalee ci jant bi so ba fajar di jot bu ne suba la tabaski bu jant bi so la fa tàmbalee ba fa fajar di jot képp ko aj si woon rek da nga jaar arafa sinon sa aj du baax moo tax ku dikk rek da ngay jàll wuti Musdalifa kenn du fa taxaw ndax bu fa nit ñi bëggee taxaw ñi aj si ñëpp mënuñ faa xaj ci béréb ba bu ñu fa nekkee ba jant soo rek dañuy wuti nag Musdalifa ndax moom boo fa jaaree rek baax na egg nañ ci ne la boo waroon ci kaw dara sax taw muuñ nga wàcc dikkal ba taxaw ba yëg ne taxaw nga rek continuer soo warutoon dara di dox sa tànk sax moom moom itam taw muuñ nga toog soo ci amul ngànt jàllal rek wuti Musdalifa nga xam ne buñ jàppoo loolu balaa fajar yàlla mën a def mboolem ko aj si woon mën faa jaar ndax bu la rawee rek sa aj yàqu na te dootoo ko mën a defar déwén nga aj si waat rek lay doon kon ku ñëw rek da ngay jàll wuti Musdalifa ba ñu eggee Musdalifa nag ñoom fa la ñuy jullee timis ak gee su ko defee timis ji moom kenn da ko wàññi ndax ñetti rakkaan la waaye gee ja moom it boobaa dañ koy wàññi def ko ñaar rakkaan rek nu zulul Musdalifa boobu mu wàcc Musdalifa ci waa war a gar yi aju ci taxawaayu arafa ci la bokk maanaam ci waru gari aji la bokk moom du mën a ñàkk soo ñëwoon romb Musdalifa rek continuer dem fanaani minan kon da nga da nga def am hadiyu da nga reyub gàtt fawulum gàtt-gàtt da nga wàcc Musdalifa moom julli fa timis ak gee te liñ taamu dëgg-dëgg sax mooy ngeen góorgóorlu ba fanaan fa rek liñ taamu dëgg-dëgg mooy ngeen fexe ba fanaan fa ba jullee fa fajar jullee fa suba boole ci ku mënul na kon boo fa jaaree ba wàcc fa julli fa timis ak gee rek bu la neexee bu guddi gi xaajee nga jàll minan ndax mooy bisu juróom-ñeenteel bi nga xam ne nee nañ suba la tabaski bu ne suba la tabaski guddi googu la ñu wax ne dañoo bëgg nga jaar musdalifa julli fa timis ak gee te boo ko mënee nga fanaan fi bu bët set nga door a xëy ci suba gi teel dem mi nan waaw nga xam ne ñàkk fa wàcc moom boo ko defee alamaan war la muy am hadiyu waaye nag boo fa wàccee ba julli fa timis ak gee ba la neexee tam nga continuer te du tax am hadiyu war la ñu bari fi ne dañ koy def ñu baree bari duñu fanaan dañuy ndax coono bi ak xiyaar gi rëj rëj ji moo tax dañuy far topp guddi gi rek dem minan benn yoon ci guddi gi waaw waaye bu fekkoon na fanaan nga fa tey ba fajar nga julli fa suba dañoo bëgg bu xawee lee da ngay génn dem fa ñax masharul haram béréb la boo xam ne foofee lañ bëgg ngeen taxaw fa di ñaan yàlla ak di ko jégalu yonent bi alayhi salaatu salaam ba fekkee dafa def bàkk fa yàlla allahu akbar ak laa ilaha illallah walhamdulilah yooyu la fa baamu lu bari ak a ñaan suñ ko defee ba bët set nag ba jant bi jegee fenk te fenkagul nag ngeen door faa jóge nag wuti minan waaw bu ñu wutee minan da ngeen romb béréb bi jox batul muhassar foofu bu ngeen fa egsee dañoo bëgg ngeen gaaw tuuti ba romb ko bon la ngaa yor oto nga yokk sa vitesse bu dee da ngaa war daaba nga dàq ko bu dee da nga doon dox nga gën a waaxu daal bañ a ba passé ko door a tàmbali nag dox nga xam ne kon yéen ñi fanaani woon minan yéen yéen a ngi yeewoo minan ci bisu tabaski bi ci suba teel ñi nga xam ne Musdalifa lañ fanaanoon it kon da nga naan ñoom it egsi nañ minan ci suba gi teel ñu tombeek nag ñu ne tey jii la tabaski foofa it am na lu ñu war a def su ngeen xëyee. bi ngeen xëyee ñu ne tey jii la tabaski li ngeen njëkk a def bu waa mooy li ñuy wax jamratul aqaba moom ngeen di sànni moom la ñuy wax jamratul kubra jamra la joo xam ne ngeen fa sànni juróom-ñaari doj yoo xam ne ñu ngi taamu woon ngeen fore ko musdalifa ba ngeen fa demee ci guddi gi su fekkee yàlla dafa dogal forewoo ko woon musdalifa itam ba ñëw minan nga wuti ko minan rek ay doj lay doon yoo xam ne du ko tax a rëy day toll ne sëb rek ndax bëgguñu mu rëy ba nga xam ne bu dalee ni di ko gaañ ak yooyu su ko defee juróom-ñaari doj nga ciy for ndax sànnikaayu jamra yi ñett la jamratul ula ak jamratul saani ak jamratul xaq ba bii ma lay wax waaye rek bisu tabaski bi moom benn jamra bii rek ci ngay sànni muy jamratul xaq ba bu bisu tabaski bi jaalee nag ñetti fan yi ca topp moom ci ñetti jamra yépp la ñuy sànni waaye bisu tabaski moom benn jamra bii rek ci ngay sànni muy jamratul xaq ba moo tax juróom-ñaari doj ngay for yoo xam ne musdalifa nga koy fore soo ko fa forewutoon bi nga xëy si suba ci minan nga fore ko minan jàmbara ji da ngay dikk daal di sànni te jàmbara yi muy doj yi doj woo ci sànni danga koy boole wax allahu akbar daal di koy sànni amat juróom-ñaar bi nga xëyee ñu ne tey la tabaski loolu mooy li nga war a njëkk njëkk a def waaw la ci topp mooy loj mooy daal di rey sam xar ba fekkee da ngaa doon koo xam ne doo nga doon def hadiyu nga rey ko bu doon ko amee hadiyu la bu mu waroon rey moo xam giléem la wala nag wala xar wala bëy mu rey ko bi nga xëyee daal sa def jamratul xaqaba rey sab gàtt moo ci topp néew naa la jamono ji nag kenn yoru tuuti gàtt di rey ndax béréb ba moo xat xataay boo xam ne di fa jiitalum xar ak béjjinam kenn mënatu ko léegi rek am na ñuy jaay rek ay xar prix yi lañ lay wan rek prix xar moom mu so doole man boo ko jëndee ñoom ñu wan la ne boo rey ko jote dañ la ko reyal waaye léegi sama hadiyu moom doo ko sax gis te su fekkee da ngaa defoon ifraat bi ma lay wax nii sax kon hadiyu mi du la war. lu dul ne da ngaa bàyyi benn warugar ci warugar yi ba tax hadiyu mi war la waaye su fekkee war na la daal xamal ne bisu tabaski bi bi nga xëyee ba def jamaratul xaq ba noppi moom rey ko moom moo ci topp soo noppee na door a wattu ndax léegi bi nga sànnee jamaratul xaq ba rek ci nga yeewiku yeewiku gu ndaw yeewiku gu ndaw nag mooy mboolem yéen araamaloon ci yow tere la ko léegi sañ nga leen leen rek moo fay des loo xam ne ba tey taxagul nga sañ ko dëgg-dëgg muy jotee ak sa soxna. wala jëfandikoo parfum yu mel noonu jote ak sa soxna wala lu mel ne jëfandikoo parfum yooyu moom taxagul mu war la dëgg-dëgg waaye sax boo ko fi defee fi nii boo ko defee du sax sa aj yàqu ginnaaw xëy nga ban ne day la tabaski ba nga jot a sànni jëmratul xaqaba jamono boobu su fekkoon ne da ngaa ànd ak sa soxna ci aj gi sax jote ak moom léegi duutu mën a yàqati sa aj ndax yeewiku nga yeewiku gu njëkk muy yeewiku gu ndaw gi yeewiku gu mag gi rek balaa mën a am moom da ngaa def tawaaful ifaada muy wër kaaba gi juróom-ñaari yoon ci bisu tabaski boobu loolu moom doo mën a yeewiku aj gi mukk te defoo ko sa aj daal du mën a noppi te defoo ko boo bu la bisu tabaski bi rawoon nga xam ne bisu tabaski bi lépp defoo ci tawaaful ifaada tam sa aj du noppeegul kon ëllëg sa faaw nga def tawaaful ifaada sa aj door a mën a noppi nga door a yeewiku ci aj gi dëgg-dëgg kon bi nga xëyee ba def jamratul xaqaba ba noppi. nee naa la yeewi ko nga yeewi ko gu ndaw ba yan araamaloon ci yow lépp léegi yu ci bari sañ nga leen xam nga dañoo araamaloon ci yow sol lu ñaw léegi sañ nga ko dañoo araamaloon ci yow dagg say weex wala karaw wala yu mel léegi sañ nga ko araamaloon ci yow kenn di la may soxna wala ngay may kenn soxna te nekk ci aj gi léegi daanaka sañ nga ko yi nga xam ne ci araamaloon ci yow la bokk daal te sañagoo ko mooy joteeg sa soxna wala jëfandikoo parfum wala lu mel ne rey aw rëbb yooyu moom ba léegi ñu ngi la koy xaw di tere léegi nag def ko sax yàqatul sa aj waaye nag ñu ngi la koy tere ba tey boo ko defee mën naa waral nga defum xaddi kon bi nga xëyee ba def jamratul xaq ba noppi nag daal di rey sam xar daal di wattu léegi nag la ñu des mooy dem def tawaaful ifaada boobu ma lay wax muy dem wër kaaba gi ci bisu tabaski gi wër goo xam ne da nga koy wër na nga ko wëri woon ba ngay def tawaaful xudum waaye nag am na lu mu wuteeg tawaaful xudum ndax tawaaful xudum ñett yoonu njëkk yi da nga ko ñëkkoon te fii ñett yoonu njëkk yi doo ko ñëkk tawaaful xudum it da nga koy wër dangaa solo woon noo xam ne solo woon lu ñaw te it sa mbaggum day yor da nga ko génnoon tey jii bi nga def tawaaful ifaada sañ ngaa sol yére yu ñaw mën ngaa sol sa yére ya nga gën a fonk yére yu ñaw da nga ko mën a sol te du tee mu baax ndax léegi loola waxtu wañ la ko tere woon léegi jeex na ndax yeewi ko nga yeewi ku ndaw sañ ngaa sol lu ñaw léegi sañ ngaa dem sol yére yu baax dikk def tawaaful ifaada te doo ci ñukkante dara lépp da nga koy dox tawaaful ifaada boobu da nga koy def noonu ci bisu tabaski bi tamit ci farata yi la bokk yi nga xam ne boo ko deful sag aj du mën a mat buñ tabaski woon ba ci suba sa taxagul nga def ko ña ko defoon ci bisu tabaski bi ñoom ñëpp mën nañoo wax ne ñoom yeewi ko nañ yeewi ko gu mag dara yàqatul seen aj waaye yow moom ba léegi sa aj noppeegut sa aj du mën a noppi te defoo ko moo tax ñu naan jigéen joo xam ne da doon aj ba egg si foofu sax yàlla dogal mu tombeek mu gis deret ginnaaw gis na póot rek xam nga du mën a dem di wër kaaba gi ndax dañ ko koy tere waaye kon faaw mu toog ba deretam jeex ba mu wër kaaba gi ak ajam door a noppi lu dul loolu ajam du noppi faaw mu toog ba deretam jeex mu door a mën a wër kaaba gi def tawaaful ifaada ajam door a mën a noppi kon sax aj du pare te defoo tawaaful ifaada su yàlla dogalee mu xat nag ci bisu tabaski ba defoo ko it mën nga ko def ca bis ba ca topp wala ba ca toppaat waaye daal xamal ne pour sax aj noppi moom mooy nga def ko moom nag boo ko defee ci bisu tabaski bi na nga noo wër tawaaful xuddoom rek lay doon na nga koy wër juróom-ñaari yoon julli ñaar rakk ci maqaama ibrahima su fekkee ku doon def ifraat nga léegi da ngay daal delluwaat minaan rek jéem a xool noo añeeg yooyu ak noo yendoo fanaan minaan ñetti guddi yi ñu war a fanaan minaan moo lay dese léegi foofu rek léegi kon bu fekkee ne ki nga xam ne da doon def tamaton mooy koo xam ne dafa armaloon omra kase nga xam ne omra ji la war a def ba mu egg bañ egsi ci tabaski ba egsi ci yow ma tar yu mu door a armal aj kooku xam nga ne kon aj gi wëragut ak wëram defoon na tawaaful xuddum ba muy omra kon wëragu ko omra moom moo ko moomoon doxoon na it safa ak marwa booba waaye loolu ñaari yooyu yëpp omra ko moomoon kon bi mu armalee aj ci yow ma tarwiya kon kooku day yëg ne moom mi ngi ci aj léegi waaye defagul tawaaful ifaada defagul tam dox safa ak marwa moo tax ki doon omra bi ñu egsee ci yow ma tarwiya ba mu armal ànd ak ñi doon aj moom bu neetee la tabaski bu defee tawaaful ifaada ba noppi faaw mu def mu teg ci dox safa ak marwa ndax defagu ko woon ci aj defoon na ko ci ba muy tàmbali waaye loolu omra ko moomoon kon moom bisu tabaski bu nit ñi defee seen tawaaful ifaada ba yeewi ko seen yeewi ko gu mag dem toog moom loolu du ko tax a yeewi ko faaw moom mu jàll doxi safa ak marwa baagante ko juróom-ñaari yoon moom ak door a mën a yeewi ko moom ak ajam door a mën a noppi ki nga xam ne dafa defoon xeraat nag. mooy ki nga xam dafa lënkale woon aj ak omra moom dindi kee ba def tawaaful ifaada ba noppi rek day daal di yewi ko moo ki defoon ifraat ñoo yem ci loolu ndax ki ne dafa boole aj ak omra ba mu defee tawaaful xuddoom dox safa ak marwa rek loolu dañ naan aj ak omra ñoo ko bokk du cëgni benn bi ci ne danga koy defal wërug boppam ak dox safa ak marwa boppam danga wër benn yoon kaaba gi juróom-ñaari yoon dox safa ak marwa juróom-ñaari yoon rek aj ak omra daal di koy bokk nga xam ne doo leen ko séddale ñoo ko bokk mel na ne benn bu ne def nga ko moo tax kooku bisu tabaski bi moom itam bu defee tawaaful ifaada ba noppi rek day yeewee ko ni nga xam ne ki doon def ifraat noonu la yeewee ko ki doon def tamaton rek mooy ki nga xam ne moom bu defee tawaaful ifaada ba noppi faaw mu boole ci dox safa ak marwa ndax danaan loolu ajam defugu ko ci woon su ko defee nag ci lañuy dellu minan nekk fa ñett fan yoo xam ne bisu set ba tisbaar jotee ñu dem ci jamara jamre ya sànni jamre ci ñetti jamre yépp ndax bisu tabaski bi moom muy démb jamratul xaq ba rek nga sànni woon waaye nag bis bi topp ci tabaski ak bi ci toppaat ak bi ci toppaat ba muy ñetti fan ñetti fan la yoo xam ne da nga ko war a nekk minan saa boo xëyee ba tisbaar jot nga dem ci jamra yi ñetti béréb la yoo xam ne béréb bu ci nekk da nga fa sànni juróom-ñaari doj nga xam ne kon yaa ngi war a wut ñaar fukki doj ak benn ndax juróom-ñaar boo ko séddalee trois mooy ñaar fukk ak benn ci ay doj nga ñëw ci jamaratul ula muy jamara ji li ñuy wax jamaratul soxra muy bu njëkk bi sànni fa juróom-ñaari doj yoo xam ne doj wu ci ne boo koy sànni day ànd na nga wax allahu akbar dikk ci li ñuy wax jamaratu saani muy jamaratu wusta moom itam daal dafay sànni juróom-ñaari doj yoo xam ne bu ci nekk boo koy sànni da nga boole wax allahu akbar mu des nag jamaratul xaqaba te mooy jamara ji nga xam ne moom rek nga sànni woon ci bisu tabaski bi moom ngay mujj toujours jamaratul xaqaba nag moom itam boo dikkee sànni fa juróom-ñaari doj daal di wëlbatiku waaye nag jamaratul ula ba nga sànni juróom-ñaari doj dañoo bëggoon nga wëlbatiku jublu xibla mooy jàkkaarloo kaaba gi ñaan ñaan gu yàgg jamaratul wusta muy jamaratul saani itam noonu la mooy ñaari jamra yu njëkk yi daal bu ci nekk boo sànni juróom-ñaari doj ba noppi dañuy bëgg nga janloo ak kaaba gi ñaan fa ñaan gu yàgg door a jàll waaye nag jamaratul xoq jamaratul aqaba muy bu mujj bi moom te mooy bu mag bi boobu moom boo sànnee sa juróom-ñaari doj rek da nga daal di wal wëlbatiku dem doo fa taxaw loolu nag bu fekkee moom nga def binni bin tabaski ba ci suba sa muy benn fan loolu da nga koy def bu ñëwee ba ci ginnaaw suba sa muy ñaareelu fan ba ci tabaski itam da bu tisbaar jotee da nga koy defaat waaw bu tisbaar jotee rek ba nga defaat ko nga xam ne yow tabaski gi daal toftal na ñaari fan yoo xam ne nekk nga ko minan te bis bu ci nekk sànni nga jamra ca waxtu tisbaar wa su la neexee dellu màkk waaj ngir ñibbi ndax léegi sa aj jaana su la neexee ne xaar ba man ñetti fan yi ndax alxuraan mooy moom fa man taajale fi yawmayni it fala isna alay ku yàkkamti ba am fa ñaari fan yi topp ci tabaski képp te xaarut ñetteelu fan ba it nee na bàkkaar néewul ci loolu waaye nag ku ko xaar nag moo gën li man ittaqa kon biñ tabaski ba noppi ba toftal ñaari fan yoo xam ne am nga ko minan ñetti fan lañ gën a taamu nag waaye boo fa amee ñaari fan doo ngir du teemu baax bis yooyu nga war a nekk minan tam bis la yoo xam ne toujours da nga ko fa war a fanaan su fekkee da ngaa génn dem màkk ba mbind jot ba guddi gi xaaj nga dooru ñëw meneen sax alamaan bi da lay war ndax dañ lay jox àttib ku fa fanaan dañu bëgg ñetti fan yooyu bi set na la jant sooy meneen nga nekk fa ba bët set bu tisbaar jotee nga dem ci ñetti jamra yépp sànni door a delluwaat sab dal waaw soo ko defee ñaari fan te yàkkamti su la neexee ñaareel fan bi képp nga yem ci daal dellu màkk waaj ñibbi waaye kon nag su fekkee da nga fa nar a am ñaari fan rek nga xam ne naroo xaar ñetteelu bis bi dañu bëgg ñaareelu fan bi bu tisbaar jotee ba nga sànni jamra ba noppi rek nga daal di génn minan bu la fa jant so waaye fekkee da ngaa continuer nekk minan ba jant bi so faw nga fanaanaat fi ba xëyaat suba ba tisbaar jot ba nga sànni ñetteel bi ba noppi door a mën a dem kon boo amee pas-pasu yem ci ñaari fan yi rek kon xamal ne ñaareelu fan bi boo sànnee rek ci tisbaar ji ba noppi boo ci sànni jamra rek bay ba nga profité génn minan waaye bu la fa jant so rek faw nga fanaanaat xaaraat ba suba ca tisbaar nga sànni ñetteel bi door a mën a dem kon boo dee yem ci ñaari fan yi boo sànni ci bëcc gi dellul màkk boo waaje ba jekk ba ñibbi dese la nga delloo ca kaaba ga def li ñuy wax tawaaful wadaa mooy wërug tàggatoo wërug di wan kaaba gi ne ko maa ngi ñibbi waaw wër googu nag moom itam guñ sopp rek la moom du waru gar waaye nag na nga doon defee tawaaful ifaada ak na nga doon defee tawaaful xuddoom noonu rek nga koy defee muy wër ko juróom-ñaari yoon waaye nag moom du am daw doo ci daw ñetti yoonu njëkk yi te itam da ngay sol ay yére doo ci génnee sa menn bagg comme noonu waaye juróom-ñaari yoon lay doon nga boolewaat ci julli ñaar rakka ca maqaama Ibrahima door a dem. kon jigéen ji nga xam ne dafa amoon dërëti mbërëg ci diggante boobu ba tax mënu ko wër su yàkkamtee du tee moom mën naa ñibbi ndax léegi loolu du farata du warugar luñ sopp ci moom rek muy wërug tàggatoo ngir tàggu kaaba gi ngir ñibbi. bu dee ka amoon màkka minan ñetti fan yi itam ba mu xëyee ci bésum ñetteel ba ba tisbaar jot ba mu sànni jamra ba eggal léegi jeex na mën naa del si màkka waaj moom itam ngir ñibbi su dee ba jekk ba war a ñibbi nag di jaaraat ca kaaba gi wër ko juróom-ñaari yoon yoo xam ne wërug tàggatoo lay doon moom itam ngir wan kaaba gi ne ko daal ñu ngi delloo su ko defee ajam daal di jeex bu fekkoon ne koo xam ne nag du ku bàyyi ko Sénégal comme nii ma ko jàngalee nga xam ne dafa jóge faneen rek te njëkkut a jaar Madina kon su noppee danañ taamu lool mu jàll madinatul munawwara siyaare yonente bi alayhi salaatu wasalaam door a ñibbi waaye nag man ci nii ma ko jàngalee dama jiital suñu jaar fa ziyaare ko door a ñëw màkk door def aj kon fii ñun mën nañoo wax ne buñ noppee rek mën nañoo wàññeeku su ko defee haddi yooyu ma doon wax nag ci kum war te amu ko day woor fukki fan fukki fan yi ñetti fan yi da koy woore ci màkk juróom-ñaari fan yi bu ñibbee fa mu dëkk daal di koy eggale ba tey haddi yu moom itam du coogi dañoo sart ne force màkk la koy reye bu ko neexee bàyyi ba ñëw fii def ko fi bu fekkee nag dafa nar a woor fukki fan yi moom day góorgóorlu ba woore ñetti fan yi foofa ba mu teelee xam ne amul xaalis te am haddi yi war na ko kon diggante fam armale ak ñu egsi ci yow ma arafa diggante boobu ne fexe ba woor fi ñetti fan su diggante boobu xatee ci moom ba defu ko ci kon ñetti fan yi muy amaat mi nan di sànni jambara ñetti fan yooyu mu woor ko su ko defee des juróom-ñaari fan yoo xam ne bu ñibbisee ne daal di koy def mooy thalaasata ayaamin fil ajji wa sabxatin iza rajaxtum tilka asratun kaamila su ko defee kon loolu ñu xam ko bu baax su ko defee ba nga armalee bari na yun araamaloon ci yow waxoon nañ ko ci ginnaaw yooyu yëpp nga wattandiku ko ci jamono ba nga armalee ba ba nga yeewi ko ak yan waxoon ne boo ko defee fiddi ya lay waral yëpp nga wattandiku ko mi reyu rëbb bëgg yu mel noonu wala rey aw teeñ ci sa karaw wala dagg say karaw wat fenn wala dagg sa we yooyu day waral alamaan waaw moo tax kon yooyu ñu bàyyi ko xel bu baax a baax kon daal jàpp naa ne yow mi nga xam ne da ngaa jóge Sénégal dem Màkka deej daal nii mooy ni nga xam ne ni nga war a tërale sa aj yàlla na ko yàlla nag yombalal ñëpp te nangul ko ñëpp te baaxe képp koo xam ne am na yéene ci mu def ko incha allahu taala te képp koo xam ne yàlla dogal na it mu dem fa ñu ngi koy sàkku moom itam mu ñaanal ñu foofu ngërëmal suñu borom subhaanahu wa taala dañ bokk ko ak jullit ñëpp ñaanal ñu fa itam ngërëmal yonente bi alayhi salaatu wasalaam teñ bokk ak jullit ñëpp ñaanal ñu fa itam ngërëmul Cheikh Ahmadou Bamba Abdullahi wa Xadim rasulihi tañ bokk ak ñëpp jërë ngeen jëf jërë ngeen jëf baax na tubaarikàlla